yomb lool àdduna bi ndax koo xam ni sëriñ bi moo waxal boppam ne sama loxo ndey joor la teela a fagaru ci moom lool jëlal ko boppam neenu keroog ba nga xamee ne yàlla def na mu gane si fi àdduna ca Poroxaan ñu indi Nganélé ga ca Ndiabakunda fekk booba itam xeexum Ndiabakunda dafa tàmbali neenu keroog la ñu bari prédire ne jëm ji ñëw jamono dana dana taxawul islam bu baax a baax kon dama mel ne waxtaanee ku baax dinu ko waxee rek inda zikra salihina tanzilu rahma waxtaane ñu baax ñi dañuy tax yërmande yàlla di wàcc fi noonu te ñii ñuy bëgg a waxtaane moom dañu fee gën nekkuñu rek di ay ñu kon koo xam ni keroog bi nga xamee ne sëñ bu mag bi tukkeem bu réy bi nga xam ne wax na ni wa lakinal xaybatu wa sababu kullu xayru kuntu urido mboolem lu ma am man Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi ko am ci sama tukki bi tukki boobu tànki maam Thierno Birahim moo ci jiitu tukki bu rëy boobu nga xam ni sëñ bu mag bi wax na ne lu mu am lu ne ci la ko am tànki maam Thierno Birahim Fati Diop moo ci jiitu ndax bu jëkk ku mas a seen ab tubaab ci àdduna da ngay daw loolu sëñ bi moo ko bindal boppam fa minhum man in raa nasrani yasubuni malaayika rahman ne ku masa seen tubaab da defe ne malaakam yàlla nga seen seen tubaab moo bind loolu mu ni mu ni mu ni maam Ceerno Birahim demal ma ci gii mu mel ni kon sëriñ bi sunnaal na foofu keroog euh, yonent yàlla Muhammad keroog ba muy dem Medina dafa wax ne nañu ko dafa wax ne Seydina Aliou na ne ci néeg bi di yëngu kon danger bi Seydina Alioune am keroog moom la maam Thierno ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy directeur u société bii ñuy dund muy lislaam bi muy dem Medina dane rakkam Alioune Abi Talib kaay fanaanal ma kaay yëngu ci néeg bi ma ànd bi abi bikkirin dem kon sëñ Tuubaa itam dane Thierno Birahim rakkam kaay demal ma ci gouverneur lu kenn ñemewu mu aw ci yoon woo xam ni kenn mosu cee jaar ndax ab tubaab nee na bu yegsee ca jamono boobu lu mu la awloo da nga ca aw kon bañ a tase moom moo gën nga xam ne ku leen mës a seen rek gi tax bu la jëkk a jege ci ngay daanu pour doo dajeeg ñoom waaye xam ngeen ni maam noo mi ngi dajee ak ko kokki njage yi sa jéy bi ñu fa dajee itam xamal tubaab bi nee waxoon nañ ko ni gouverneur nee na ko woon saa yoo jasee dase ndim ndawul Cheikh Ahmadou Bamba rek nanga nga daal di taxaw foofa ba ndaw la yegg si ba xam lu mu indi kon lëkk la rek la maam na waxanteel fi kokki mu ni ko sa mag jooju ñuy wax Ahmadou la nu waroon a jàpp moo pël bu ñuy wax Paate dëkk ca arrondissement Médina Guène Paate nag benn pël la woon bu récalcitrant moom itam bu beroon ak bu beroon daaraam ci àll bi nga xam ne tubaab bi tiitaloon na tubaab bi lool ndaxte moom it dafa beroon nekk ci ay tata yor ay ngànnaay ànd ak pël yoo xam ne yëpp moo leen jiite lu mu leen def loolu def lu mu leen tere ñu bàyyi ñu ne loolu dafa war a jeex tey mu ngi paate moomee nag mook Sëriñ Tuubaa la ñu woole woon benn bis le 10 août 1895 mais bi mu dajee maam Thierno dañu ko sa mag ji Ahmadou ak paate mi la waroon a boole jàpp suba ci le 10 mai paate faf nañ ko gërbal yeew ko jatan nañ ko tënk nañ ko jënk ko chef de canton bu ñuy wax Yamar Mbodj dëkk bu ñuy wax Mérina Guène ci arrondissement Médina Guène ci dëkk bu ñuy wax Ganado yow nañ ko foofa kon suba ci la diis la war a dajeeg sa mag gi ñuy wax Ahmadou nee nañ keroog tuwaab bi sax wax na ni mësta gis ko dalee ne maam Thierno Birahim boo demee ci archive ne mësta gis ku mel noonu ndax dañu ma Ahmadou moom yi ngay tudd di tudd paate moom yi day boole nga yu bokkut ndax paate moom yi nga yeew tey gërëbal ko tënk ko dénkaane ko ci arrondissement bokkul ak Ahmadou mii ngay bëgg a dajeel suba ndax Ahmadou moom bu ngeen dajee suba da nga xam ne pate du Ahmadou Ahmadou du pate loolu la ko maam Thierno wax daal di continuer moom jëm ci ab ab yónnee na kon ca suba sa ca la diis ca suba sa ca la diis boo demee ci Irwaawu Nadiim baa nga dem ci lu baax Xadiim bu sëñ ba le 10 le 10 août 1895 maam na moom dem na ca tukki ba gis na gouverneur ba mu demee itam euh, lu mu doon wax lu ne waa ji di ko salfaañe moom dañuy teg ne tubaab bi man li may wax ak yow jërul mer kon bi ngay mer nii waa ji waxu la li ma wax man li ma sëñ Touba wax ma di la ko wax jërul mer sëñ Touba dañuy rek jotul sa benn lettre lettre yëpp ñu ngi ko doon stagné ci yoon wi du egg ci jaraaf ji du àgg ci sëñ Touba min ko bind dañ koy téye pour ñi la bëggul euh, ceddo yooyu bëgg nga dal ci kawam ñoo doon bloqué lettre yooyu ba doo ci jot pour rek bëgg nga jóg dal ci kawam waaye jotul sa benn lettre bii mu jotee nag lettre bi moom mi ngi ñëw waaye lii ma lay wax ngay mer li ma ci jaaxal gisuma lu jar mer kon kii may waxaloo lantinoor bii dina yeggale samay wax li muy wax bokkul ak li may wax ci intelligence am ci xam-xam mu am expérience mu ne ko lii may wax ngay me man waxuma ko ndax waxuma lu jar mer kon nan arrêté kii te wutal ma beneen interprète kon maam Thierno Birahim borom sang froid la woon boromu fit la woon borom xam-xam bu rëy la woon itam ku wóolu woon ki ko yónni la waaye ki ko yónni it ku ko wóolu woon la ndax dama lay wax ne la jëkk Serigne Touba ku mu jël liggéeyam bi ak doomam yi doomi boppam yi ak ak ak ak yoonam nga xam ne bi may dem ci géej gi dénk na maam na juróomi téeméeri taalibe yoo xam ne bu leen ni woon law asaara ilal bahri xuus leen ci géej gi ñoom ñëpp danañ dem ba jeex ndax gëm gun ko gëm mu dénk ko na ne ko man kat eh, nekkuma di kuy def violence dama bëgg su ma jógee sama tukki bii kenn sax du ci xuri ku masa am nag noonu yu mel ne noonu noonu siècle de la vitesse et de la lumière ku am noonu yi nga xam ne nii borom mi xam-xam lan eh, ku am noonu yu mel noonu rek sànq nga sa mbooloo ca loolee sànq nga sa mbooloo ca la la nga doon xeexlu rey nga ca sa mbooloo rey nga ca say bokk rey nga ca say rak sëriñ bi na baada salatin la tazol bil ali wa sahabil udul wa biye jadi di sabil bi lay dan awalami jinnovare le patrimoine islamique sans guerre et non violence kenn du faatu kenn du dee ci ab tukkeem kenn sax du ci xuriku kon li wéer mooy sëriñ bi maam Thierno waxal na ko lam ko yónni woon dellu si na nee na bi mu koy bëgg a wax rek dani ko ceernu ko dara daratuma wax léegi daal yow génneel leen ma fas bi takk ko ak bagage yi sunu borom sax nee na bu ma duggati ci kër gi eh, daal di jël sëñ Mamadou Moustapha ak Cheikh Ahmadou faadal dénk leen seen baay ceerno daal di takkaayu na ko ceerno fóot mi dafa bari lool te tilim ji bari lool laaj na fóotkat bu mag ak saabu bu rëy rëy rëy bu mën a fóot ndax wax ji bari na faaw rek léegi ku mën a fóotay dem muy moom ci boppam mm. taseeg tubaab mi ngi ànd ak fukki nit nag ak ñeent la archive wax nee na ka ca magoon mooy ma bànji xujja ma bànji xujja njaay moo te mag mais mu sëñ tubaa dafa bëggoon lool eh, di ko dend ak ndax du dul daanu daana ko wax ma bànji eh, daanu maqaama la ñàkk daanu it kon yow mi dul daanu den toog fi sama bu waxee ba noppi nga jottali leen ko nee na mu keroog bi nga xamee ni seen nanu tubaab bi sëñ ma bànji nee na dañoo mel ne Euh, tool yu nangu la ñu seen maanaam fetal yi nga xam ne moom la tubaab yi gàddu jëm ci koo xam ne yorul benn yorul sax puso moom Cheikh Ahmadou Bamba yorul puso waaye nag yor na loo xam ne nii ku ma sa wàcc toon liggéeyal yonent bi nag yoruloo ko moom ba tax dañu ma bànji mu ni ko ñee de xam naa mooy ñi lay jël si mu ni ko ma bànji ñee de bu ñu fa da nga xam ne mosuloo jël si kenn ku mel ne man mu ni ko foofa de boo fa àggoon ñu rey la léegi man du yokk ci sama ngëm dara boo leen du wàññi ci sama ngëm dara boo leen rayee du yokk ci sama ngëm dara mu ni ko xam naa ne ma bànji man duñu ma rey du ma leen rey daal moo fa waaye danañ xam daal kan moo kan lan wuy si kan leen wuy si gis nga sëñ bi jeewal rek la ni billaay faaraxtu woon nasaara jeewal yi wa xayruhu xattan bilaa tanami sama digganteeg tubaab bi jeewal gii la yem li ci des lépp promenade la woon bopp dama ko doon defali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon ko liggéeyal waaye tubaab bi fii la xamee ne du ma seen morom ndax foofee ca le 18 1895 fa la nu contraindre sëñ bi ne ko doo julli mënoo julli tisbaar jii ngay bëgg a julli gymnastique bi mënu fexaj sëñ bi yëkkati ay loxoom nee noonu ba karaw yi poqitaaram di feeñ mu def juróom fukki bismillahi rahmani rahim waa ahlil badri ñëwaat waj ilahu mutawajjihun bil mustafa wa bi ahli badri rufqatin man kummilu waa ahlil badri ñëwaat ci aw doon ay éclair ay melax la tubaab yi wax tubaab yi nelaw ci kaw fas yi fas yi tiit bay tuur ndox sëñ Tuubaa julli wax na ni sax ba muy jëkk a jóg dafa jógaalewul woon am ndox loolu la irwaawu na di wax nee na am na ko jóge ci gajj bi yor benn wiirum ndox ñëw duyal leen satala ak yéen bëggoon ku ko duy yëpp nee ba noppi ñu làkk ko araab làkk ko pël làkk ko lu nekk waaye taxul benn yoon mu mu mu mu mu tontu leen moom Cheikh mu moom waaja dafa daal di takk rek dem sëñ bi nag bi mu defee noonu ba mel xet yooyu wàcc di waa alil badri nee fas ya danoo tiit bay tuur ndox tubaab ya nelaw ci kaw fas yi loolu la archive bind bi nu nelawee sëñ bi julli fa tisbaar julli fa tàkkusaan julli fa timis julli fa gee ba noppi ne dan fanaan fii ba xam dana am góor gu ma tey ma fanaan fii man ba mu xëyee suba ca fajar ba mu jullee ba noppi la leen Cheikh Amadou Bamba fête histoire ñu yeewu ca koo fas ya daal di ne la l'histoire a tourné une nouvelle page lii sax mësta xew mësta am moos nu jëli ab xare nun tubaab yi yóbbu wun leen nu jëli kenn koo xam ne rek fukki nit ak laa la àndal fanaanal nu fii jóg ba pare rek pose proposé waat ko ne ko xanaa fii nga doon fii ñu fii ñu toll nii amatoo fenn foo jëm dañuy aw ak ñëw nii Louga bu ñu demee dugg ca gaal jéeri ga nga wujj gouverneur mu ni déedéet kokki lay yenn kokki njage issa jee lay tàmbalee ji as noowu ahlil badi kon sëriñ bi amul kenn ku ko contraindre doo di itam dans les archives nationales lu nu bind leneen lu du arrestation de Ahmadou Bamba à Diawle mais gisoo luñ ca teg parce que lan bin ne ko dangay ngay jaar ni ñu dem Louga sëñ bi dee déedéet kokki lay yendu ji ndax loolu la diggee loolu lay bind foofu lay bind ji asmaa wu dégg nga Cheikh euh, Moussa Ka na keroog ba jëmmam ja jubloo kokki Ahmadou Makhtar Ndoumbé moom kokki def ni ki niy dimbali tey ak ëllëg fii lay yendu si moom ñi mu àndal damaa bëgg ñu lekk aw yàpp ba bàyyi ko fi jël leen saa gétt gële rey ko te rikk waay bu kenn taxane di ko yàggal song leen saa néeg yi xeddi ko te jël gayet gi taalee ko gis nga kon kooku xam na boo demee tey jii fan ko xeddile woon néeg ya lépp ay terrasse la moom moo jara xeddili néeg moom moo jara rayal gétt ndax dara manquétul ca kokki googee foofee la toog ba nu julli gee ba taw bi taw taw wicc wicca lool la waawu na di mu wax neenu mu takkaluwaat fasam woowee fas woowee nga xam ni Moussa Ka ne nag ngelamu la mu doon ràmbal jibri la yoon ca gog ba moom la àndal te sëñ bi nee na moom itam keroog fas wooye mooy mu waroon wutewul dara ak ak jibril moom ci boppam jotewul dara ak ak ak ak alburaax sëriñ bi ne fa kon ba gee ban julee ba bi muy taw taw wicci cal dégg naa la takkalu na tubaab yi topp ko seen fas yeey di cal fasu sëñ bi dox te ñoom mënuñu ko dal ne ba am benn tubaab sax bu ne ko ay yaa cheikhu mahlan urfuk bi nafsika wa bina ay sëriñ bi le te nga noo dimbali ba nu jógee ba tey ñu ngi bëgg a àndandoo ak yow te mënuñu laa dab xanaa sa fas wi leneen da cee dugg sëñ bi ne leen xiitoo fi ma baala mar xuusin la woo yetal masalu mu ku ngeen jàpp nu ngeen sàggane ba mu leen di xam ngeen ni yéen maa kon sëriñ bi amul benn yoon bu mu jëfee violence maam Thierno Birahim Fati Diop nag moo doon kóolu téem moo doon ki nga xam ne moom la wóolu dénk ko lim ko dénk yoonu murit wépp mu nekk xalif général des murit ci Sénégal te sëñ bi nekk fi kon maam Thierno digganteem ak sëriñ bi mu ne su ko relaté ci ay quelques trente minutes ak yooyu bu dee sëñ Modou Awa Balla nag sëñ Modou moom euh, wax na ne mook sëriñ bi xaadimu rasul ak maam Thierno Birahim na nu jotaay boo xam ni naanu sëriñ bi dafa ñëw njaareem dal kër sëñ Balla Thioro nee eh, na sëñ bi tëdd ba guddi mu laajte mu ne ba toog ba ci guddi gi mu laajte ana Ceerno ñu ne ko ma nga kër mu ne déedéet sama borom rus na rus naa sama di ma gis may fanaan fenn Ceernoy fanaan ne dëkk bi ñuy fanaan ñu fanaan fu wute nan man nan man di Ceer maam Ceerno keroog mi ngi ànd ak sëñ moo Hafiis mi ngi ak sëñ Moodu Awa Balla mi ngi ngeen di ñaanal keroog sëñ Moodu moom dafa tëdd ci diggante néeg bi maam Ceerno ne ci biti bi ne ci biir ne waaye jaabante bi mu doon jaabante di jéggi sëñ Modou nee na dañu maam Thierno amatuma moodukat kat bii ma ko doon jéggi amatuma lu ma def du fees na dell ci jéggi bii ma ko doon jéggi koo xam ne nag sëriñ bi moo la duyal boppam ba amatuñ fu nuy def ci yow kooku lépp noppi na fi yow lépp mat na fi yow nee nekk na nekk na daarul sëñ bi woolu ko mu ñëw moom sëñ moodu awa Balla nekk sëñ bi sëñ bi ne ko léegi damaa bëgg nga dellu nag daarul muxti yore li ma sa baay boo ko yoree nag ba gisatoo ko ma di ko yoral sama bopp man sëñ Tuuba te man de Modou ku ma yoral san bopp ku la dugg man mii la dugg te man de xëjuma ci yeeli kenn man sëñ moodu kon eh, yàlla na nu yàlla taas ci barkeelam lii ngeen def itam lu mat di def la nit ku nekk da ngay am kilifa euh, am kilifa rek mooy li am solo ku ko am am solo ku ko amul doo am solo ku wéeruwul dangay ngay yomb bu ma Cheikh du Bamba ku mu dénk sëñ Modou Moustapha dénk la sëñ Fallou dénk la sëñ baat dénk la famille bépp ne ko fi wa fi ay mag yi ak foo mën a nekk ak ñoom rek doy na ma jox ko ay tegtal yoo xam ne amul bu ca manqué dégg naa bi sëriñ bi jógee ci géej gi xam ku ne xam na ni le 11 novembre bërki démb lañ ko doon màggal fii le 11 novembre 1902 booba ba tey sax luy dal tubaab yi ci le 11 rek lay dal ci seen kaw le 11 lañ tàggoog sëñ bi le 11 novembre 1902 le Cheikh Ahmadou Bamba wàcc bi mu wàccee dem Lambinaas fi nga xam ne maam Cheikh Rafaal moo ko ko wutaloon kër Alsaan Ndiir nag la daan dal wala kër Assane Ndoye ci Ndakaaru waaye bii yoon maam Cheikh la dañu ko sa këru bopp ngay dal ndax wut naa ko nag waaye sëriñ bi teewu ko mu ne nañ ma jaarale ci alsaan jaarale ma ci ndax ko kóllëreem gu rëy ndax jàpp gu mu jàpp moom lu mu jàpp du ko bàyyi soog a dem dali nag ci kër ga waaye aw na fi ñoom ne leen tey kat dañ ma fee wutal kër ba noppi bi ñu ko kër googu itam mu toog fa la ko tubaab bi dañ ni ko da ngay dellu ndar ndax ndar la nu laa teewoon faaw da nga dellu ndar te la delloo ndar nag ba nisfu saabaan wii nga xam ne moom la ñuy màggal fi daaru mutti Cheikh Issa Dieng moo ñëw ci sëriñ bi sëñ bi ne ko daal di dem wooy li ma Ceerno Ceerno nag sëñ bi nee na ko woon bul di gëj Touba bi mu maam Cheikh Issa di ñëw fekk na ko muy nemmi ko Touba ndax loolu la ko waxoon ba nu ñëwee itam mu wax ko ne ko sa waajam Cheikh Issa dawal na ñaari fas ci yoon wi ba nu faatu ndax yàkkamtee wax Ceerno rek sa mag ju baax di ñëw na bi mu ñëwee ñoo nga jaar ñu nga takkee foofe jaar yol ma jaar ci wetu curangeen génn ci limaxa continuer jëm ca Serigne Touba. leen bi ñëwee Cheikh Issa ak maam Thierno Birahim bi ñu jëkkee gisaa sëñ bi mu jógee ci géej gi xam nga loolu lu rëy la. xam nga tubaab bi mësta yóbbu kenn ci kaw suuf mu dellu si waat. tax benn naar nee na ko sa naa sa sa sa sa sa taalibe yi wax ne yow yaa yóbbu woon sa bopp li ma ko gëmee mooy li nga dellusi si. li nga dellu si rek a tax ma xam ne yow yaa yóbbu woon sa bopp yow Cheikh Moussa. ndax ku mës a indil ku mës a ku mës dikkal sa ku tubaab bi mës a nga mucc amut kon yow mii d'accord naa ne yaa sa bopp ci géej gi benn Cheikh Sidil Baba sax moo ko wax loolu ne kon nag it waa senegal gépp nañ xam ne maa dara ardun usidat fi jawarihim ala yakunu rabbihuha asqaha tanzul ufatir bi birrikum awtaanaha atta tara maanaakum maanaha Sénégal ñoo ngi dëkk ak koo xam ne doyewulu dara ab taw ndax moom du sawet Sëñ Bàmba du sawet te bañul benn jiw kon Euh, noo ngi ziaraat bu baax sëñ Abdou noo ngi leen di xamal itam lii lu am fulla la lu am solo la ndax sëñ Touba lii da koo diggoon tubaab yi alxuraan ji ngeen wàcce tey jii fii loolu sëñ Touba moo ko diggee woon ak tubaab yi moo leen ni woon dinaa dellusiwaat fii ci yéen wa fii ay seen ruqi dëkk yi fu ngeen fi mën a ne dinaa leen fa fekk te lii rek la tubaab bi doon bañ tey jii këram yaa ngi fi alquran nu ngi ko fi jàng ñu ngi wax hadis si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu yi tubaab bi dàkku defe na ni woon du ama mukk defe ni woon dootul jógewaat ci sëriñ bi kon sañ mag bi ñun mënuñu ko fay déedéet mukk nii munu def jàppal nu boppam ndax sëñ bàmba moom ku jàpp bokku la ku mu jàppul ku mu jàpp mooy man lu mel nii alquran lu sacré la alquran lu mag la bu ngeen dee wàcceel bu ngeen dee màggalaat fii sëñ Modou Awa Balla moom nga xam ni moom day diirub li mu fi nekk gis ngeen keroog ba ko ba nu ko jëlee indi ko daarul indi ko Louga ci sëñ Góora Fall loolu man maa ngi Kébémer keroog sëñ Abdoulaye ci boppam moo jóg jële li ko ne kenn du kenn du rooti di yóbbu ndaa ndaa dañ koy bàyyi fa mu ne di sotti kon sëñ Modou Awa Balla mi ngeen doon màggal dafa mel ne am na doyen bu fi nekk boo xam ne moom ma koy gën a mën a expliquer ni ma ko bëggee moo tax maa ngi sant bu baax di santaat si ñàpp di santaat bu baax ñi fi daje ñëpp tey di ay liggéeyaa ko ni sëñ Touba képp sëñ mag bi nag moom eh, li wér rek mooy li ko tubaab ya wax la yéen la ko naar ba wax la yéen foofu te kullal awliyaahi mutaqara fa xayral baraaya fi xururin awaxiri ahmadu tité tellement élevé que la voûte céleste semble un degré inférieur Ahmadou tu as dépassé toutes les éminences comme le prophète Élie a dépassé tous les autres yow Cheikh Ahmadou Bamba boo mujjee ñëw ci góor yàlla yi gën leen warunoo jaaxal ndax Muhammad mi nga doon moo mujjee ñëw ci yonent yi te moo leen gën kon yow boo leen gënee warunoo jaaxal ñoo ngi ziare ñëpp comme dañoo dañoo nekk foo xam ni dañu faa taseeg ñoo xam ni tamit kenn gënu leen a xam lii nga xam ni moom ngeen woote ñun suñ mi di sama di sama mag sama lépp sama doyen damay bàyyi Cheikh Abdou ñu ngi tey jaarewaat bu baax a baax a baax di bégg itam euh, maa ngi ànd ak Cheikh Abdou moom soxna Bali ñëw fi muy sama xarit di sama sëriñ euh, euh, di ñaari yoon sëñ Touba ak ak ak kon bu ñu àndee ñëw fii ñu jox ma fi kàddu honneur dama waxtaanal tuuti ci maam Thierno Birahim ak sëñ Modou Awa Balla mi nga xam ni Euh, ku nekk xam na li mu fi nekkee woon ci lu baax yilifoon daarul muxti yilif gu mat sëkk wax ne caabi yii ma ŋàbb moom dama liggéeyal sëñ Tuubaa ba mu jox ma caabi daaru li ma fi bëgg rek mooy xew loola euh, wér na noo ngi jaare ñëpp yal na yàlla taas bu baax ci darajey maam Thierno Birahima ak sëñ Modou Awa Balla yàlla na nangu liggéey bi lee ci barkeb Serigne Touba euh, noo ngi daaneel foofu kàddu gi ci barke Serigne Touba Baye Amadou waaw ñu may baax rek suñu gàmm ñu ngi sant yi. ah waaye kàddu yi rafet na lool moom fàttali ngeen ñu rawatina safar bi nu nekk daanaka indiwaan ngeen ko bu baax a baax. daan it liy jiital ci yi sax mooy jaar sëñ Abdou bu baax a baax ak sëñ Cheikh Abdou sëñ Abbas ak sëñ. waaw mboolem sang yi fi nekk yëpp daal wax dëgg yàlla ñu ngi siyaar kenn ku ci ne ci sa tur ak ci sa santa ak ci tur mboolem bàyyi daam nga xamante ne daanaka mooy fii suñu jëwriñ bu fi bàyyi meq daan néew yor daayira bi di ko doxal ñu ngi koy siyaare ak turam di siyaar mbokk taalibe yëpp ak soxna Xadi nga xamante ne daanaka moom moom man nga yi moom raw na jëwriñ daal mooy day daara ji suñu lépp ci daayira bi loolu jàllee nag ñuy santaat bu baax rek fu waay mën a jóge rek ba teew ci jataay bi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ak di ñaan safar bii nu dugg lépp li nga xamante ne suñu borom ak Serigne Touba dëlee na ko ci ay xéewal lépp rek suñu borom defal na jël suñu jot dañu yàgg koo fekke ay at yu bare bare bare bare ak Serigne Touba balaa ñuy dugal sëñ Ahmadou nag nga xamante ni du sori waaye moom yaakaar naa ni ci jataay bi ni ko sëñ Bamba waxee waxtaanam am na solo lool waaye sëñ Ahmadou ko nga xamante ni daanaka ba nga ferem sew lañ la jox sëñ ah, Mouda Balla moom nga màgg ci wetam di màgg ba daanaka ni mu génne jamono lépp rek mhm. génnoo ko te noonu daanaka man nga ni jat daayira bi ak jataay bi ak taalibe sëñ Tuubaa yëpp xeeñtuwuñ dara lu dul ku ñu wóor ni kookee am na ngërëmal sëñ Tuubaa te sëñ Moodu moom yaakaar naa ni kenn nattable wuñ ne am na ngërëmal sëñ Tuubaa ndax digganteem daa nekk rek ci diggante sëñ Tuubaa ak borom daaru nag kon li ñuy yittewoo ci jataay bi mooy soññee ak fàttali maanaam diggante yooyee ak jataay yam daan toog ak sëñ Moodu ak daan gis doxalinam ak yooyu yëpp loo nga xamante ne taalib yi danañ ci mën a mën a mën a bu ko defee xam naa bu yeggalee du ñàkk sëriñ Xaadim wala sëriñ Abdou rek kenn yëkkati ci kàddu bu ko defee sant mbooloo ñu ñaanal leen ñu ngay def ci ndigalul sëriñ Maam Balla Mbacke ñaan suñu borom wax dëgg yàlla kaamil yi ñu fi jàng ak alxuraan jeeg yéen taali bi yëpp rek suñu borom dolli ko wér bu baax a baax ci barke Sëriñ Tuuba jërë ngeen jëf ñuy bu baax it loolu moom la njëkke woon waaye moom la ñu mujj daayira borom daaru bi ni ngeen ko xamee daanaka fii lañ koy defee weer wu jot taali bi yëpp daje fi ñuy laaj li ñuy laaj donte 10 euros la at mi muy mat 100 euros nga xamante ni ki fi nekkal boroom daaru lañ koy yót te nii ñu ngi koy waajal nii ci màggal Tuubaa gi lañ koy lañ koy yóbbu loolu ñu ngi ciy soññ mbokk taal taali bi yëpp rek ñu xam ko jàpp ci loolu dal jërë ngeen jëf ñu ngi santaat bu baax kon bismillah si njaxam asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di ñu ngi ci turu borom daaru jotaay bi bi ñaan ci ndigalal koy àndal ba gisatoo ko boo ko gisatee yaa ko fekki boo ko fekkee doo dellusi si war ngaa sàkku kersa bañ a dox seen diggante sëñ Thierno Diop borom kër gi di sant ba mu doon njaboot it bari na koo xay waxtu boo amee visa te jaaxle bëgg naa dab wala sa mbokk recevoir mu doon sa mbokk doon sa mbokk tànn nga defi nekk ba mën a dem defi mu nekk ba lu fi njabootam xam nga xam fi lu ko ëpp wala nga xam ko fi kon ci garab suba mooy dal garu ngoon waaye tegu woon tegu woon ci gan mu ngi ko tegal ci kaan ndax du moom rekk a fi nekkal te kom fi nekkaleen lii ko yàlla defal ginnaawam bi nga fi nekk moom ah moom la ko yàlla dogal ci moom ba noppi nag la yàlla diggéwoon ak moom mu def nu nit am nañ dig boo xam ne ku ne gëm na ni sa wàll dana ñëw. dëgg la na nga jot sa wàll. ku yàkkamtiwul rek nawet di nga toll sa noonu. te dara mënu koo fànq. ndax ku nuyu rasulullahi. sallallahu alayhi wa sallam. ba boo demee Medinatul Munawwar morso bu wert lañ lay woon wax la ñett ñu fi tëdd. nga dee ndax dañ koo beral loxo nga dikk ba Sénégal ñu ne la fii la Cheikh Ahmadou Bamba tëdd eh, fekk fa maam Thierno Birahim mm. sëriñ ma daal ban la di ko wéttilikoo kon war ngaa jàpp ni loo rafet rafet njor mën ngaa xool ci sa bopp lu tax nga xam ne sa dem a ngi ñëw man ngaa xool ci li nga defe ni boo ko doon jombale lenn te du ndigalul yàlla mënoon nañ fee nekk te duñ fi yóbbu kon sëriñ bi gëm nañ ni sa coobare la lool ñaan sa ceeru jot yàlla dolli leeram mu ba fi yéene nag joo xam ni mel na ni son borom mën nga ko ciy dimbali ndax bu sañan bii boobu àdduna bi bu ne dana fay waaye bu sañan taalam bii dana dana yeex a génn ku fi dugg te xam ni fii la daane di nga fi fekk njabootam mbaa nga fekk fi lu bokk ci moom te seen xool gën a yaatu kër gi loolu nag yéen ñi fi daje te daan fi dikk te di fi dellu si ndax yoonu jëkk seet si la dem dellu si ci jikko yi ki nga seeti woon waaye foofu nag danga nga ciy gisee ni bu leeluy xew dëgg mën naa doon ci liggéeyub maam Thierno waaye sëriñ Modou Balla ko fekke fi mu nekk kon kuñ la ne baax na te xamoo ko mu defar dangaa waxtaan ak soppam waaye ku suur day yafal dara mbër day sàkki mbër kon wax na ni ci réew mii nu ne baan na fi mbër moo xam ne jëwriñ lañ ko mën a tudde mës sa njël jaxaay te mus fee daanu ba boroomam soxla ko jël ko kon yàlla ko yàlla dolli leer ko ci ndigalul sa ñam ñëw naa fii aw yoon li tax wax lu ñu gëm moo gën wax lu ñu giñ ndax boo waxee lu ñu war a gëm dees na ko gëm waaye ngëm bu giñ bu dee tax ñu gëm la nga wax nit dina wax ak yow ba giñ ci sëriñam te ka muy waxal du ko gëm may wax fii barki dem booba nekkoon fi yaa ngi Sénégal waaye dama wax fii ci kanam soxna xadiloo moom yaa ngi fi njëkk indi ci kër yi te France kër yi bari na kon bu ma delsee tey fekk la fi fekk fi ñi nga bokkal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fekk fi muy taalibe yi mel na ne ndox bu ma fàttali ko loolu ndax ki la teral wàcc na mm-hmm. waaye ki ñuy teral mu di ko nëbb wàccut kon loolu lañ doon wax ci sëñ Thierno Diop njabootam gi dees leen di ñaanal waaye kenn du leen gërëm ndax àdduna de weeru koor su ma jant suuf jiw weesut kon soxla na ñaan lool ñu sañoon daal wala ñuy àgg ci borom daaroo kum njabootam na ma leen fa bàyyi doon leen xool ñaari bët tey mu leen xool juróom-ñeenti bët. yàlla bu ñu laal ci dara lu mu jéppi yàlla bu ñu laal ci dara lu ñu mer yàlla bu ñu laal lu bokkul ak seen bopp buñ ci noppee dañoo dee ni ku sa yaay togg doo fande sëriñ maam Balla bokkam yi fi ne fi leen maam Balla toll bàyyi nañ ko ki ko xam tolluwaay la la ci seen bëgg bàyyi nañ ko ki ci xam lu ci kenn xamul ginnaaw nag cëri jaamu yàlla yi am na ci boo xam ni sunu borom a ko waxal boppam addu'a li astajib lakum ñaan leen ma ma may leen ku tàllal la ku tàllul bépp xol bu mu mën a doon te nga xam sëñ maam la cofeel gi ndax sëriñ moo daal Balla loolu bàyyi ak doom waaye jikko ji tax na kenn ku ci nekk maam Balla bu la gënalul sa bopp def nga ko lu sa bopp kon ndéeg nun taalibe yi noo ci mel noonu moo tëdd ñu naa ko na def waaye boppam bokkam yee ko ëpp wopp xol ñoo ko ëpp wopp yaram waaye ak koo yëg ak yëg fi ngeen ko teg ak yëg ni ngeen ko def man baa la ngor ga dem ne di ko gunge ba cafeelu taalibe yi ak bokk yi tax na metit yi bu doon fukk gisul juróom-ñett yi ndax sant borom ndax sant sëriñ Moda Balla ak am yaakaar xam ni bu ko jëfam mayul lim bëgg it taalibe yi dajaloo seen xol bi guddeeg bëccëg bu jóg ci moom jiital seen mbokk yi bàyyi see xat di nekk fa mu nekk bëggee genn kon fa tabarkàlla mën nañ cee rafet njort yàlla bu ci yaakaar tas ah, bu ko defee nag ñu sàkk ci kàddu taalibe yi eh, fii Ahmadul Xadim Yaman doy na wax bu dul jeex ak lu baax te du jeex loo ci am bu ko xeeb danga koy doyloo yàlla ko yàlla na ko kon fi mu yemoon doy na sax ndax du jeex ndax li jàngkat yi bari bari bari bari bari mën nañoo wàcce kaamil bi waaye li sëñ Bàmba bind kenn wàccee ko kaamil bi nag bés bu ne ñu ne xat mu bi waaye xat mu xasaay man dégg suma ko ngi téere yi ba mu jeex ñu ne li sëñ Bamba bind ci géej gi bind ko ci jéer yi bind ko ci jaww ji li mu àgg li mu gas suul wàcce nañu ko tey tey la xatmu bi la dala ci Seex Moustapha ba ci jataay bi mosuma koo dégg ceerno mi ñu ne mooraaw it mosut a wàcce xatmu bi tey nag waxuñu ko ndax mu jébbal Seex Mat Bamba ni man bés ci balaay lijjanti waaye ceerno na leen gàggante lool nag sëñ Bambaay waxal ba ko kon defe naa ki sëñ Bamba sedd gàgganti defe naa xam na aaye dëgg la de ki sëñ Bamba di mooy gàggante kii gàggante sëñ Bamba seen ci gàgg déedéet déedéet sëriñ moo daaw bàll mel boo demee bu bëgg koo yéem dangay xam ne du garab bu sax fi suuf jeeb bi ñu naan xurumu sax mbaa tunduwu sax mbaa fu ñu ko jëmbatal am na lu ko jiitu garab gii mën naa doon kaani mën nga cee dagg bant di ko soccoo waaye doom bi nag du jar macc du jar soccoo defe naa déggu leen na garab gis sa ak dama ni garabu kaani doom baa ko gën a wex bant bi mën nga koo dagg soccoo ko te doon yi is doo naanum ndox waaye bul soccoo doom ci sa loxo fees nga na yem ci gerte bu ko def kaani kon sëriñ moo daa mën naa ne lool waaye tax ñu naan ron sori seen xool du fekkee Ceerno du kenn sëriñ Tuubaa nangu ne du kenn te kenn du Ceerno ba def ci ay yéem yu mu yéem ci jikkoom ak defaroom ak ngorom ak maandoom ak nangoo liggéeyam ak li ñuy xontoo te jëmm mënu ko muñ muy lu ñuy barkeeloo lu ci Sëriñ Tuubaa ma sa barkeeloo loolee ñu di ko tudde aw ñam ci ñàpp ceer na la bàyyi ko kon bu Sëriñ Moda Bale dikkee di tànnee foog yàlla wax ku ne moo lay tànnal wàcc nga yem ci waxi Sëriñ Tuubaa ci moom Sëriñ Moda Bale nga yem ci doxinu Ceerno ci moom door a gis Serigne Modou Awa Balla kon li nga gis lan la ak loo ciy gis kon sëriñ Modou Awa Balla ci diggante maam Ceerno ak Serigne Touba doo ko gis-gisub takk ndeer ndax takk ndeer fu jëmm ji taxaw day tollook moom nga ni lee la waaye bu jant soo te làmp tàkkul dootu am takk ndeer kon nekkul Serigne Modou Awa Balla ci fi ko maam Thierno bàyyi woon digganteem ak Serigne Touba lu nekkee nu takk ndeer kon ñi nu jàngal sëñ Modou Balla mën nañu cee yem te du ci ku nu ko jàngal Ahmadu wax na ko léegi sëriñ tu sëñ moo dooy nettali maa fekke waxut ak man it damay gone nekk ci daara ji muy wax ak man ñu may dégg te fàtteegu mu ne Serigne Touba nee na Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko Moodu laa jëkk a gisee kuy nelaw ba ma defee dafa génn àddina ndax nit ñi de dem nañ dugg ci seeni néeg fay làmp bi nekk ci seeni lal mu jóg dugg alxuraan fanaane koo tari ba mu àgg diggante boobu moo koy taree ci laa doon jéggi Moodu ba yére yi mu soloon fi mu tëdd di nelaw yére yooyu dafa sotti ko ba yore melakaanu suuf te Moodu yënguwul lii ngeen doon def léegi di jàng xatmu bi ba mu wàccee dama ne Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko seetal Moodu ndax daa nekkatul mu dikk seet ko yëngal ko Moodu yëngu hmm, man de defoon naa daa nekkatul ndax diggante bii may tari kaamil bi ba muy àgg ma dem dellusi si defe woon naa ni loolu nit mënu koo tëdd te yënguwoo te man Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko man de nelaw du ma ko nekk fenn te fu ma fekk ma ba ko fa sëñ Mora Balla nee na sëriñ Tuubaa ni xam nga waxtu muy def lu luy niroog nelaw nee na muquraas muquraas ak weñ la da dem cat wékki ci satal xam ba ci suuf muy tàkk nga bëgg mu baax nga tàmbali mais diggante boobu mu ko tegee xambal ko boppam ba muy tàkk diggante boobu muy war a bax ak ñàkk ba bax mais fi ma toog nii tiim ko boo amal luy niroog nelaw foofu la may dikkale te balaa bax nelawee dana jeex nee duma ko nekk fenn te fu ma fekk bàyyi ko sëriñ Moda Balla nee na moo ma nii Ceerno mu ni ko Mbàkke mu ni ko neel Moodu lu war a ne ci moom def naa ko ci bu mu jeñ bu mu ñor di leen ko jigul mu ne ko lu ko jigul mu ne ko léewtoo lii xew ci jamono ñu naan ko bëri Moodu bu léewtoowul lépp lu dugg ci tànkam man man Sëriñ Tuubaa la fekk ah, wax na ko léegi dugg ci tànkam man Sëriñ Tuubaa la li ko daal it boo seetee cër yi digganteem ak Sëriñ Tuubaa doy na sëkk sëkk sëkk ay cër ndax lu kenn amul doy na bari la loo ëppale rek doy na capital ëppale ko ñëpp doy na capital dëgg la suufu ceeru ñeent fukki kilomètre keneen koo xam ku ko am leen diw cërub kenn cërub lenn dama ne ñeent fukki kilomètre yoo xam ni bi nga fi ne sa baata ciy dox bii la gisatul ba tey baatul sañ see de ciy dox kuy doom yow la ci sa baat di doxal fukki kilomètre dëgg la te Touba ak Daaru 28 la kon boo ci tegal 12 da nga romb Mbàkke ba ndax Mbàkke Touba 7 la kon ñeent fukki kilomètre benn toolu Ceerno doy naa xame kan mooy Cheikh Ibrahima Fall jumaa ju la neex waxaaleen boo génnee Medinatul Munawwar dem Kaabatallaa boo gisatee loo ko mën a leen da ngaa dikk jumaay Serigne Touba waaye boo nee wan nit tu sëñ Bamba keneen koo ni tër da neex xool nga ko waxee waaye gis ca suba toog nga di ko wax kon jumaa ju mel ni jumaay Daaru Muxti ci anu Ceerno ci li mu liggéeyal Serigne Touba bu pay gi yeman foofu mu doy mhm. kon ginnaaw waxi sëriñ Touba ci Serigne Moda Balla te du jeex njabootu boppam gii nag dañ ñoo jàngal kan mooy sëñ Modou Awa Balla sëriñ Abdou Khoudoss jàngal nañu kan mooy sëriñ Modou Awa Balla njabootu boppam gii miinuñu jataayam bali sëñ Abdou Khoudoss nee na Ceerno nangam déedéet waa kéemtaan gu ñuy xam ci nit wax na ko ci sëñ Modou Awa Balla wax na ni man Abdou Khoudoss lu ma sëriñ Modou Awa Balla defalul la koo amul kenn nattable woon ni Ceerno ma jur waaye sama kër gii ma dëkk kër sëñ Mor Awa Balla woon kere ba mu demee war a doon Ceerno Ceerno dem bayti ba muy génn kër gi jëlul laay yi jëlul dàll yi jëlul yére yi ñu wékkat ci porte-manteau yi jëlul téere yi yi jëlul dara ci këru àdduna dafa génn kër gi completement génne ko benn turki dara dem di seexi rafaati jël kër gi may ma ci kanam ñii benn néegu ñax ba sëñ Moda Balla nekkal dañ lu taalibe man lu taalibe am te di ko def néeg sëñ Moda Balla bii nañ ma ko fi bàyyi bu doon am junni at du doon lu dul néegum ñax bi ma ko defoon duñu ko soppi duñu ko saase du mel neneen duñ ko jële fi mu nekk kër gépp tabax nañ ko ba mu def léegi ne kon sëñ Moda Balla lu ma defalul da koo amul waaye lu mu am defal la ma nee na moo jël Seex Asta Jeey ab taawam jox ma maa ko eggaleel àlluwaan sëriñ Mawla Balla yëkkatil ceerlu jumaa woo njaboot gépp ba mu teew muy leen li la waran ci seen maam ci kuy doom li waran ci seen baay ci képp kuy doomi ceerlu seen maam képp ku dib sët tabaxal ko jumaa rekk moo ci des waaye lépp lu ma battale woon defar naa ko ba mu mel na mu ko bëggee woon ndax fii di daar mooti waxtu wu ne génn naa ko waxtu wu ne dugg naa ko xam ngeen lu taxam ma di ko def ñu ne ko déedéet balaay sa mu ne damaa bëggan daaru du ñee benn dëkk dal na nee na mu jël jumaa jii jox ma moom Serigne Abdou Khoudoss ne ma na nga ma ko taxawoo ne àdduna jépp di ma jox te wutul ku may contrôler Serigne Abdou Khoudoss di ko taxaw di ko taxaw di ko taxaw di ko taxaw ba kër googee egg jumaa joojee egg ba mel na mu ko bëggee woon mu jël caabi yót ko boole koog la desen ci xaalis bi jébbal ko kon bu mu sëriñ Mor Serigne Touba jàngalee kan mooy Serigne Mor Balla njabootu boppam Cheikh Abdou Khoudous jàngal nu kan mooy sëñ Modaw Balla ndax Baye Cheikh wan nañu kan mooy sëñ Modaw Balla Baye Cheikh ndax wan nañu waaw dëgg la kii ku ko mag fanaanul ci njabootam ba mu koy yëkkati di ko jox Serigne Moustapha Absa Jaxate agul ci xamee ndajoram ak càmmooñam fu masani moo ko fa yóbbu ñu jublu ci mbirum Baye Cheikh ci jàng mi mënu jàngal kan mooy Serigne Mor Awa Balla nga xam ni man dinaa ci tuuti liñ ci dégg dana ci tuuti ndax wax dëgg yàlla ki yor ndabam di root ci dee bi war naa xam lu ne ci nee bi dee bi ci war naa xam lu ne ci dee bi dëgg ndax mosu koo génn Baye Cheikh. xoolal bayti noo dégg Ceerno mel ni Baye Seex def na ni bayti xoolal maqaamam laa daa dégg Seex Ibra Faati ci ayub Sëriñ Tuubaa maqaama mel na ni daara mu ci gépp boo ko waree benn bés la ñuy gàmmu laylatu mawlidi nabi ñu di ko gàmmu ñetti fan fa ñu koy defee fa tabaarakallah bàyyi seex nga koy soppi ba mu mel nu mu melutoon demal daaree kaamil bàyyi seex na mu ko def nii bi maam Thierno daa toog boo duggee ci kër gi ci ngay jëkkëyam na mu ko soppee jàkka def ko mar bàyyi seex ngeen nuy jàngal jël milliard ak genn wàll dolli ko ci jumaa dëkk ci néeg boo xam ne ñaar fukki junni de nun doo ngoy toog fii kenn ku mu ci ni defaral moom néeg nga defal ko néegum ñax bu gën bi muy fanaan ndekk kay tabax baax na waaye fexe ba tabax a ko tabax waaw baax na waaye ndekke ba tëb pax a ko gën te sëriñ mun a bàlla toog naa mu ni gaa ñi day daañu wax ku mën a war waaye damaa dee dañoo xamoon nga war ku ñu wax sëñ Mbàkke Anta ni ko moo sëñ Modou luy nga war mu ni ko wàcc yaat tàbbi àjjana loolooy mën a war bay seex toog fi moom maamam yii dañoo defe ni njabootam gi nga xamante ni ñii day seen maam ñii muy ba wayjur bay seex doo toog fi moom bu jóge fi moom te waxula kuy sëriñ Modou Balla ndaw liy jóge ci moom di dem ci sëriñ Moustapha ndaw liy jóge ci Serigne Moustapha di dem ci Baye Cheikh mënuñoo moos ba nuñ ci yeelante par des ndeke kay bëggu bëggu maam Thierno yàlla du ko neena gisal doon ne jàkk Serigne Mora Balla ni ko Moodu mu ne ko Mbàkke mu ne ko jëlal seex mii nga yóbbul ma ko yor ko ci sa loxo lu mat ñaari weer ba ma miis ko ñu door ko yóbbu jàngu ndax dama koo bëgg lool kon mënumaa xëy xëy génne ko ci sama loxo joxe ko dam ja ab jàngu di jàngi alxuraan waaye yoroon ma ko ci sa biir nag mu yor ko di ko tëraloo du tàqali kook moom ba bisu tey bii ndeke denc ngi ñëw boo xam ni ku yëgal loo am di nga ko def ci denc ba ndax ku bëgg a bari na da ngay boole genn la yàlla du jeexal. ñaata jàkka yu ñuy tuddee jumaa la bàyyi seex tabax. demal ba kër sëñ Fallou Asta Dieye mu jëf ci yaar dafa jël benn oto ñu di ko ab mbaar mu def ci këyit yi ca war a nekk ba këyit yi mat mu réussir ko ba mu ba man liggéey li mu koy sant mu yónnee ko sëriñ Fallou Asta Dieye ne ko def naa ko muy mbaamum ci yéen fa soxla fàtte yi sa tëdd ndax foofu la yem déedéet daara yooyu yéen sëriñ moo daa bàll doon déeyaalee nekkan faak soxna moom i xaadim rasul ñu naan ko nguddu paye ba yàgg ñu naan ko dar rahman mu yëkkati fa jumaa ba sëriñ Fallou jumaa joojee egg mu taxaw ñu jullee ko te bàyyi seen mu si caa teg tànkam te kenn participé wul saako saako saako ciment te yemu ca boo demee ba ca soow ba da nga fa jàkkaarloog jumaa joo xam ni fa tabaarakallaa na dar rahmaan mel yaa Dakar mel ni noonu la jumaa yooyee mel te du yooyu dong bàyyi seex bu la jàppalee Serigne moo daw bàlla dangay dee ni bokkatu la moom Ceerno sëñ Modou ne wallahi ahmadu sëñ moo nee na maa neex a àndal ñu ne ko Mbàkke lu tax nga neex àndal mu ne ahman képp ku ma yàlla booleel nu ànd loo am teel lu ma am bokk ak yow sëriñ Modou Awa Balla nee na xaala ko am jëlal xiila ko am jëlal man de sëriñ bi afu taalibe ngërëmam doy na ma sët te sa borom defal la ma ci loo xam ne faat na ci ku koy wuti ama bokk taalibe gi nan la ko defee sëriñ bi bët dafa seen bi sarsaara am sunu jëwriñ yu jël juróom-yetti fas yóbbu ko ca tool sëriñ Moraba la ñuy ji dara maam seebuluwul noonu nu yóbbu nu ñu nu yóbbu nu sarsaara fu jëkk seebulu dongo yépp lañ fay maa bu ñu dem liggéeyal man njaay mii jëwriñ ji jël juróom-ñetti fas yi yóbbu ci tool bu mag bi jël yaari fas yi yóbbu ci tool soxna moomi ñuy ji toog ba ñu seen naas bee koso bi muy mel-mele ñu laa yem ba dikk daara ju mu ne ko maa ngi ne ko ana ana ana tool ko rek mu ne ko yónni naa ci yaari fas <laughs> juróom-ñetti fas yaa ngi sa tool ci tool bu mag bi sëñ bi tontuwul de bàyyi ba juróom-ñetti fas yi fi ñu doon liggéey yaari fas yi fi ñu doon liggéey sëriñ ma daa balla woo dongo yëpp ñu mën jaay nañ dajale gerte gi ak ngooñ yi yëpp yenu ko yóbbu ko ca fa nga doon yabal yaari fas ya fi nga nee ni mooy tool bu mag bi mooy tool bu ndaw bi ndax soxna moom mi mii bu dul loon bàyyam kenn daan tool bu mag sëñ Modou nee na buñ ma saa jël addi yi dikk di ma ko yot kii Cheikh buñ ma saa jël addiyee di ma ko yor bu addiyee ji agseegul te boo ko xoolee xam ne dafa rafet mu sopplu kenn ku ne xoolatoo dara lu may addiyee ji mais balaa agsi fi man sama xel du xalam kenn soxna moom xaadim rasul rek lay xalaat ndax naa ne ku am addiyee bàyyi ma tax balaa addiyee di ko jébbale mais sama xel du benn borom bu dul buy agsi rek ñu ko soxna moom xaadim rasul kooku mooy Serigne Modou sëriñ Maodo Balla moo ni sëñ Fallou si yii ma fekke xanaa xamoon ni li gën a metti bokk na ci sa taali bi dina la tàggu lu gënul ci moom nga di ko ko tere mu metti ko ah day am yoo xam ne buñ dikkee fii fi man di ma tàggu aw yoon daf may wóor ni yoon wi ñuy dox ñu ngi dem waaye duñu dellusi si téye beeg ñaan gu yeex geeg bañ ngee bàyyi mu dem bañ lu ko naqari la te dogu na ci te su ma ko teree ma te wóor na ma ne bu demee du dellu si sëñ Fall ne ko ma aman baatin day dana ma neex lool mu ne ko fàllu mu ne ko mbàkke mu ne ko baatin neex la tàggoog sa soxna muy tukki nga ñaanal ko te mu te du dellu si muy bootu sëppeen ci ginnaawam te nga xam ne bu demee sëppeen du dellu si ndeyam du dellu si te baatin dalay wan li ci war a xew bi nga koy ñaanal te demagul ñaanal la boobu kooku mooy sëriñ maam Thierno nee na sëñ Modou bis daa am mu ànd ak sëriñ Cheikh Awa Balla sëñ Cheikh Faty Fall sëriñ Abdou Khoudoss sëñ Modou Habib ñi ci mag ñëpp ñu ànd du def benn kuréel dikk jëm si ci maam Thierno Ibrahima Faty mu amal nag woowu mi ngi ci biir kër gi ñu di ko wax belees lewet doom fu maam Ceerno toog nawi dikk tëdd fi wetam mu toog ba yàgg mu séen leen ñuy dikk déggal maam Ceerno ca ngor la naka ñu ko jub mu ne ko Moodu mu ne ko Mbàkke mu ne ko xanaa sa gaa ñii li tax ñu jiital la belees sans waa rek la bëgg ma leen ko ba ñu rey ko mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko jël leen def gi ñu la def ngay sama waay ba tax ñu jiital la bëgg ma may leen belees man da ngaa xamul ni ku ñun yaay sama waay samay noonu buñ la rawalee ak buum jox la ñu la demal nga wékk ko ci baatam boo dikkee ma jox la sama baat ndax lañ ma waaye léegi yow. ci biir jëfi sëriñ moo daa balla jataay bii am na fi njabootu ku ñuy wax góor a xari Malick jëlu ko kii fa lañ ko yóbbu woon muy xam xaraf sëriñ Modou Fall jiite woon liggéey ba mu woo ku ñuy wax Touba ni ko Touba ana Thierno mu ne ko mu ngi nii mu ne ko jóg leen taxaw mu ne ñoo ket taxaw mu ne ko yëkkati naa leen te kenn ku yàlla bind kuy dox ci kaw suuf mënatu leen aw. waaw ma bëgg nu yëkkati ko ci nag. waaw amiin waaw yëkkati ko ci. waaw bëgg maam Balla yëkkati ko ci. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin mu ne ko Touba te kat la ko defee ñu jóge lu ko dikk di ko siyaar rek mu di leen xool rek ba yàgg mu ne ko Touba ana Modou Thierno jógal taxaw ba ñëpp xam taxaw ni ñu ni ñokket taxaw mu di leen xool ba yàgg ak doom ba baatam ko di ko wëlbati rek te def xànjam ni ko yëkkati naa leen te kenn mënatu leen daal ci ñam yi jataay boobee te xam luy yëkkati am na lu ca xam ku tedd kii wax na ko dañoo toog bés sëriñ moo daa balla dem lu ko dem gane ji góor a xari Malick mu dem bay bëgg a gont sëñ góor a dikki jooy mu ne ko looy jooy góor a mu ne ko Louga gépp am nawet juróom-yaari at sébbalu wuñ te ma am gan goo xam ni ku ma bokkuleelul gan maa la ko gën le ma bëggal nga wan leen ñoo ñoo yow yaay kan. mu ne ko nga bëgg ci lan mu ne ko mu taw gàncax yépp daal ñëw leen wert tey jii mi ngi mi ngi boo ko boxamee mu boxam te bu tawee mu rek mu ne ko wutale fas ak i watiir yónni leen nañ yéene ne loo ay bañ mu tooy na dafa kookaay sëñ moo daal bañ hmm. ñaaral fas yi wër di yéene biñ daataa si ci kër gi weewu fas yi fu mu jóge woon foofa doon na taataa kookee mooy sëriñ Modou Awa Balla moo tax góor xari Malick fay na ko góor xari dafa ñëw këram yi ab sëtam la moom dafa ñëw Louga sëñ góor xari reyam xar defu ci diw defu ceeb ceeb ànd ak sëriñ Seex Awa Balla jël ko def ci biir cin li di ko togg ba yax yi tàqale ay këll la am bool amul mu jël cin la rek sotti ko noonu ca këll ba mu àndi saxal mu ub ko dikki jébbal leen ko andim raxasu ban toogee ba loxo ñëwee ko sëñ góor a xar yi biñ daataa tàmbali mu dem wut ñaari kilo yu suukar yu nooy ñuy jariñu mu dikk ni ci réet suukar soosee ci ñam wi ci yàpp wi ci ndawal gi sëñ Modou ni ko gën ah góor li loo ci jublu mu ni yëreet la woon ne ko mbàkk bëgg mu neex rek ngeen ko mu neex rek bëgg mu neex rek bu ma nee ak leneen boo andee suukar gën faa neex bëgg kon baat bi ma waxoon nag yow ni la ko kuñ la ni baax na te xamoo ko mu defar bu ko fàtte kenn du sëñ moom woona kii seen mag ñu naan ko sëriñ Fallou sa jeey ni ko Fallou mu ne ko Mbàkke mu ne ko li ma war na defal seen maam lépp def naa ko jumaa jee ci des te su ma sañan nga ñaanal ma te soo ma ñaanalee su ko tàmbalee dinaa ko eggal sëñ Fallou ne ko neexal ma neexal ba nag jox ko matériel waaw lan ko santan ne ko moom laa bëgg nga neexale ma ko ba mu ko yëkkatee ne ko defal nañ la loolu mu ne ko boo ma defalee nangam nangam joojee di nga tàmbali jumaa ji di nga ko eggale fi nag esa loolee bu ko neexalee dafa ni bu ma boo ma neexalee ba lépp lu ma wax mu am jumaa ji di ko tàmbali di ko eggale mu ne ko Fallou defal nañ la ko waaye defal nañ la ko naa la ko ñaanal du benn. ngeen maa déggul. defal nañ la ko ak danañ la ko ñaanal ak sëñ bi jeexalul dara déedéet du benn. dëgg la mu ne ko Fallou defal nañ la ko. keroog ba demee ci sëriñ Fallou déggal de Serigne Fallou Serigne Touba ñu wo. esaafu mu daal ñu woo ñu sant Mbàkke ñëpp ñu war a tàmbali jumaa ji. sëñ Fallou mi ñu doon xaar mu war tàmbali jumaa ji sëñ Modou ni ko demal nga soññ ko déggal fi sëñ Modou waxee ak fi sëñ Fallou sëñ doomam tontoo ñu yebal laat ko ni ko demal ci sëñ Fallou ci bés tàmbali jumaa ji mu dem mu dem mu am ngan ni ko Fallou ma mu ne ko Mbàkke mu ne ko Fallou rek kay Fallou jox naa la ndigal boo demee na nga tàmbali jumaa ji ñu defar barab bi tooyal ciment bi mu jël turel bi màggal ndigalu Serigne Fallou kon moo tàmbali jumaa ji dama ni doom yombul sëñ Modou maam Thierno ko ni Modou mu ne Mbàkke mu boole ko nit ni ko demal joxal ma kii juróom fukki lay dugub sëñ Modou dem ci dugubam. joj maam Thierno jox ko juróom fukki kilo jàllaat ci dugub bu boppam jox ci jox ci ki muy jox lu dugub yi juróom fukki kilo kon muy bëri kooku bàyyi ba jasaam moom bàyyi ba julli timis fi maam Thierno toog ba mu ne asalaamaaleykum mu tegoob siram dikk ni ko xamal nga ni Modou boonu boolee du jox dara bëri ko la ma jox. te maam Thierno ne ko nañ la jox juróom fukki maam Thierno waaw toogal foofu ñu woo Moodu woo leen ma Moodu ñu Moodu mu dikk mu ne ko waaw Moodu kuy baax da ngay baax ci sa alal lu ma la waxal nga jox ko mu ne ko juróom fukki ko lu tax nga jox ko bëri ko mu ne ko ah, mu ne ko waaw man ngaa leeral kay ndax bésub layoo bu dikkee ko doo peyaatooy mu ne ko yéene laa lëg yéen dugg ci ma mbayal Ama Baldé mos ci amul kilo fële la ko yéenee liggéeyal te bi muy laaj dugub mbaa ko ko dimbali bu jëkkan ci man dinaa faj aajoom te doo ko yëg tëj sa tur rek tax ma di ko def waaye du sangos dama koo jox juróom fukk ci say kilo ci sa dugub dem ci sama dugub jox ko juróom fukk kilo boole ko ndax laaj ko ne ko ndax dugub yi ñaari barab yi ñoo bokk fu ñu jógee mu ne ko de da ko koo jox fee jox ko mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñii bul wut bànneexu fa ma la doon taawloo taaw yaa nga fa boo mu matuloon taaw du ma la taawloo maa la tànnal saa bopp taawloo la saa te taaw yaa nga fa kenn du kii mu sëriñu kii ak kii ak ñii fi ne muy Cheikh Moussa sa jaxate dégg na ñetti baat maa fekke kon ba tey li ma waxal ni maam Thierno bul fàtte de du garab gu sax ci xur wi rek ami xob ngay suuxat ba mu may la ker déedéet sëriñ Abdou Lahat sëriñ Touba nee lu ma Moustapha wax ab sa ak lu alxuraan wax laa yemale sëriñ Abdou Xaadir moom sëriñ Touba kenn xilaafa ki fanaan fee ci da ko wóolu mu dikk mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko liggéey bii ma bëgg a liggéeyal tubaa Touba mbaa jàppoo jëkk naa caa yaakaar kenn ku ma ci jàppale ku dul yow. sëñ Saliou woo ngi ñëw borom xay goo gii borom njàpp ndala njurul borom dookaa borom ñebi njël ak ñetti mbaar borom daara yooyu nga xam ne turu daara wu ne yàlla ñu ko xàmmee boo ko jaawalee doo ci mën a jariñoo xel koom jéggi huit tur huit tur huit tur ku ko saraa mat na téere xel koom am xel bu la dul xelal lu la boolee koom-koom matutum xel déggoo ma de xel mu lay tere ni la bul dugg ci li ñuy tere duggal ci li réew mi bëgg te ko romb ñi dugg ci li ñuy tere moo tax ñu bàyyi courant bi di taab sondeel yi tey de damaa ne da ngeen maa dégg mu ne ko Moustapha Sëñ Saali wooy wax mu ne ko Mbàkke mu ne ko bés bii fi liggéey bi accès maa ngi lay ñaan juróom-ñetti fan yi ba bés bii dellu si bés boobu ba bés bii dellu si nag ma dimbali di nu bokk def fanaan ci biir kër yi ñii ñetti baat ku ma jox kaamil dinaa ko ci doo di ko fekk kon li gën a metti bu la ci yàlla musalee ku la gënul du la gën doom kuñ la ni Serigne Touba la gën Serigne Touba la jamono gënu la raw la dimbaliwu la gàggantiwu la ngeen dem ba seeni doom des ci mu gën la doom dara gënu ko métti. dëgg loolu dëgg la. Serigne nee na daa dikk di siyaar Serigne Moda Balla ci suba saman laa amum Abdoulahat ndax daa dikk siyaar si ko. ci suba sa sama soxna am doom ma dem fa ni ko soxna si yeewi ko mu ni ma góor laa am jigéen ma ni ko góor la mu ni ma tuddee ko sëñ Abdou Aziz Sy ma dem moom sëñ Tuubaa mënu leen ràññ ne ko suñu de xam nga lu mu doon mu ne ko déedéet mu sant si Baay Ceerno doom mu te nga defi Ceerno xam nga lu may sant si Baay Ceerno te nga defi Ceerno mu ne ko déedéet mu ne ko dañoo amul lu may Sëriñ lu may Sëriñ Tuubaa te mënuñu koo booleeg suñu bopp te ñu ñun démb mënuñu war a tax nu ànd ak Serigne Touba te képp ku fi yeewoo nga andi waajuram dikk ci biir kër gi ba mu am si ku ñuy xoolee Serigne Touba bu du doon bu du do am ku ñu doom yi Serigne Touba la bu du doon bàyyi Ceerno sa waajur du ñëw tànk yi rek sant la mooy samay tànk man da koy gën kon Serigne yi ko daal xaju fi ku ko fi waxit du jeex jasakumullah waaye ngeen xam ni lii ngeen jàpp mën a jébbaloo wutub sëriñ boolewuleen nag moom yónnil seen xel mu toppal la say tànk ak li nga xamante démb loola seen xeet nettali loola du négatif jullit boo seen taalibi boo seen bu bëgg a lëggeel sëriñ Tuubaa waaye boo ràññantalee te teqantal dina la wóor ni Ceerno bokkut a liggéeyal Serigne tubaa Serigne Touba da koo liggéeyloo déggoo ma de bëgg liggéeyal nit ki loo dee ni neex na ko nga ne daa bokkul ak mu tànn la ko neex tey njariñul boppam tànn la ko neex tey yi tànn la ko neex te muy njariñul tey ëllëg maam Ceerno bokkut dëkk tax ko am Daaru Musti ñaanu ko. dëgg la communauté rurale dogalu ko. dëkk loo ne ki pël Mor Anta di leen rooral bañ maaj ko dëkk Serigne Touba bindub leetar jox ko sëriñ am Amsatu Jaxate ni ko jox ko Ceerno nee ko na dox na waru fasam bu sëlbalee fajar nay dox dox bu yam bu mu ëpp bu mu yées fa jant bi fenke ba dem yoor yooru góor na fa sanc dëkk tudde ko Daaru Muxti lu ko fa fekkul dama ko dëgg la waaye maam Ceerno rafetul dégg na dégg la maam Thierno takk yor leetar bi dox di doxal di doxal di doxal di doxal di doxal ba agsi ci pël yuy ci fii fare kër baay seex ci soow bi sancam boobu ñuy wax ni kër baay seex bi nekk dem nag fii sëriñ nekk sayaan ya fa ne taxaw nuyu leen ni leen fii mooy fan déggal déggub maam Thierno ñu ni ko fii mooy toogi njëkk noonu la ko pël yi ay siyaan la siyaan yi tugg toogi jàpp maam ceem leen gees leen waaw kon di fii ko fi toog di nga jàpp toogi jàpp mooy turu siyaan yi hmm. di kon fii ku fi toog di nga jàpp hmm. toogi jàkk kon da nga dëgg la borom tukki bu néew bii ñu naan ko bàyyi seer te du diis kenn soxla te soxla suñ ko yót mu faj ko ndax ma ngay jagal wala jagalul te maay seex fi mu dawale jërul làbbali làbbali fi gaañ saw fas la ku wut sëriñ Abdu Xuddus ñu la digg dégg daali waxtaan nga ak say sopp waaye doy na problème sëriñ Abdu Xuddus wut sëriñ moo daa bàlla ñu la digg dégg daali loolu doy na sëkk problème ñeent fukki at xalifa sëñ Bamba bu fi nekk ànd ak dongoom dikki di la siyaas moo dal sëñ moo daa bàlla bu yónnee sëriñam di xuddoos mu daw bu dee toog fi moom du ko joxub siis mu sukk ni dongo yi inauguré lu ñeenti forage mbaa ñeent ñeent yëpp dëkk mun ta ñàkk sëñ Abdou inauguré lu na rotation dane woon courant bi taal fépp bëgg naa mu taal daaru waaye waxtu boo teppee sama lettre président fekkit sama soxla keneen ma ko bindal waaye waxuma ko ni ko hôpital bi ñëpp am ñu di ci fajoo bëgg naa moom fi ni ko aw yoon bëgg naa moom fi ni ko téléphone automatique bi nga xayante ni buum gii boo jàppee boo waxee ci àdduna foo wootee ñu wuy la bëgg naa moo am fi yenn yëf yi benn yoon lañ ko immigré foo ko ma a dégg ci kaw suuf ñu def ko fenn ci Sénégal dëgg la ñu ne bàyyi seex dikkal ñii wutu leen doy mu jëm bëggam sëñ Abdou yi bokk nam toog man man moom bàyyi seex ñu jox ko àddi ju ma bëgg man ma jël ca sëñ Abdou eh, sëñ Abdou lii de war nga ma cee wax mu def kaamil bu doon ñeenti xaaj ma ne ko yii ñeenti xaaj de dama ko bëgg loolu sëñ Baye Cheikh day. di xamu koo ñimee wax. Eh, ruus na ma te def naa ko baaraas Moussa gi dee ko ne kaamil bi de xam naa bu ñu joxoon Amadou mu di ña <laughs> Baye Cheikh ne ko Abdou te ngaa génn sama diggante ak Amadou. <laughs> Abdou lii maa ngi yàggu génnal sama diggante ak Amadou ma ni Abdou xam nga lu wax na koy baamuwaat dégg nga Abdou génnal nag sama diggante ak Amadou ma ni Abdou génnal sama diggante ak Amadou. bàyyi seex bëggut leen lu may seexee na faati ñii ngi caméra te day nett li feneen kii fi nekkal sëriñ Touba ñu naan ko Serigne Seex Sidi Maxtaar ku bëgg a am Serigne Touba dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu ko xool ci doomam na ko xool ci sëñ Seex Sidi Maxtaar liggéey bii dana ko yóbbu foofu ku dul Serigne Touba xamoo fan li mu def keneen ku ko defoon na nga naa doom jumaay Ndakaaru jii nii mu mel ak ñi ko tàmbalee woon ak fi mu ko eggal booy seet juróom-ñaar muy seet tuddal Serigne Cheikh Sidi Makhtar ci juróom-ñaareelu weer la gane àddina juróom-ñaari fan ca weer wa la gane àddina fekk jumaa ji juróom-ñaar juróomi soroor mu soppi ko ba muy juróom-ñaar di juróom-ñaareelu xalifa yi sëñ Bamba. Bamba sept seven juróom-ñaari sooroor yi ko def sooroor bu ne mu def ci juróom-ñaari milliards. tërib sët. te feccegul day woggante ko. borom wax ju néew waaye loolu lépp màggalu daar mu ci dikkee seen cër ba ngeen am yaakaar ko doyloo ko muy seex rafaati day dikk. màggal ci def fa ñetti fan mbaa ñeenti fan te mosoo koo dégg feneen mhm. fu dul Tuuba mhm. waaye bu dikkee xam nga lu muy wuta dafa naa yarub yoon wi teeñ bi teeñ bi laay jëlu si nga teeñal ma ko bàyyi seex lay wax de nga téeñal ma bàyyi seex bu toogee ba nga xamante ne nee ñu tey jii bésu màggal gi mu defari añ yu ñu yu tedd boole kooku teraanga ñu ànd dem yóbbu ko bu ma ko ko jébalee ni ko bàyyi seex nee na bi nga doon wut si ngir yaroo ko yoon wi téeñ baa ngi ba déwéniti hmm. ku ceer na fàkkal kenn day yow. téeñ boobu de moo ko wax fekk. waaw dégg nga. ba mu njëkkee doon hmm, xalifu Sëñ Tuubaa màggal daaru gi mu njëkk a fekk. waaw. maag Thierno Lo ministre ñoo fa ànd. waaw. mu ne ma Seex Abdu li tax ma màggal si ma ne ko waaw mu ne ma Sëñ Tuubaa kum joxub yàlla. boo bëggee mooy da ngay ñëw Thierno Téye moo tax mu màggal. dégg seex ma ko. dégg nga Thierno Lo ak. doomu suñu Moussa Bessi Baara. ak Cheikh Ndiaye ak ñoo fa bokk toog. Axma doomu suñu Moussa Bessi Baara. ak Thierno Lo ak Cheikh Ndiaye ak ñu bokk toog. suñu seex ma Téye wax na ko. ma ku suñ yan ab yan boo ñëw Thierno Téye moo tax mu ñëw màggal si. ma tàggal ko ci na ko di nga fi yàgg loolu. ma ma waxee loolu loolu ko ci tey. li fi ceerno kenn xamut lan la déeg la mbaa teen la mbaa dex la tanga ci li nga naan bu sa morom dikkee tanga naan baat boobu kat bul jàpp ne sëñ Seex Sidi Maxtaar moo ko jëkk a wax sëñ Ibra daa toog di xalifam sëñ Bamba maa fekke man laa taamat juróom benni fan mu solu daalam bàyyi fa Touba dikk ba ci Serigne Moda Balla ni ko jàkk ni ko kat dama doon siyaar si waaye damaa bëgg yoon wii woo Serigne Touba wii ñu jël ma ni ma yaay jëwriñ ji yéene naa ko liggéeyal lu ko kenn mu sa liggéeyal sëriñ moo daa bal ni ko demal toog mu dellu yor loxoy neen sëñ moo du tekkeel toll ci lu matul weer raamat ñaar fukki fan juróom ñaar wala ñaar fukki fan juróom mu wëlbatiku la mu def xaw ma ko de def ko ci gaal weñ gu weex boobu nikkel la mu tedduy jox ko Serigne Moustapha Absa Jaxate ne ko demal nga jox ko sëriñ Abdoul Ahad nee ko yoon wi dana ko yóbbu foo ko kenn mës sa yóbbu ah, dañ laa dey ko yóbbu foo kenn mës sa sori naa moom de li Serigne Touba denc ci maam Thierno ku ñu mas a denc ci yow amoo denc bu ni mel saayiran ko baatin moom du ñëpp ko xam kenn koo fi xam juróom-ñaari doomi Serigne Touba yeewoo ci keppaaram kan la yónni leen seeni xel néew ko sëriñ Fallou ngi nii ak Serigne Modou Moustapha dénk naa leen yàlla ak yonante bi ak seen baay Thierno ak sëñ Baara nga xam ni sëriñ maam Thierno bokk na tëdd ak ñoom si biirum sàq sa fanaan ci taati garab ba yàgg mu julli ñaari rakka allah sëriñ baara mii bàyyi sëriñ Seex Sidi Maxtaar wëlbatiku li tax làmmiñ wii dem ci feebar ba mu ko bàyyi koo da feebar ba mettee nag la maam Ceerno jàpp ba seel nag ndekete ku dul tiit amul julli ñaari rakka deeyaaleeg boromam ni ko njabootu sëriñ Tuuba gii mu ma bàyyee bu ci kenn naree manqué jëlal bakkanu fàtt yi si sama wajur wala nga jël bakkanu Mamadou Awa Balla wala nga jël bakkanu Modou Habib mu jot leen waaye bu ci kenn ma mu dikk ma di lay dara ak yow rafet ñaar déggal booboo baax kon bu loolu amee nag sëñ Tuubaa mën a fay déggal lu mu def ana soxna moom i Xaadimu Rasuul ku jox du seen kumpa de sëñ Maodo Balla jël soxna may Kabir jox sëñ Modou Habib moom maam Thierno ñaari mbokk ndey nga jël kii jox mag jox jël kii jox rak ndax ci la yem dellu si ci nag ñaar ñiy mbokk ndey ak bàyyi sëriñ Seex Awa Balla jox ko soxna may moom sëñ Bamba soxna may Kabir dem ci sëñ Modou euh, sëñ Modou Habib. soxna may Kabir moo jëlee bàyyi kii sëñ Daaru Salaam kon bi nga ne wool ma ko te jóg téléphone dagg sa yitt yépp ngir moom nit bu mënul boppam du mën a boppam te keroog ba mu koy bëgg a jox sëriñ Modou bi maam Thierno yi bëgg a wax nag daa dikk ci sëriñ bi ni ko man kat may moona mii nga bëgg a jox Modou bi su ma sañoon du ma jur ku dem sa war sëriñ Tuubaa ne ko ndax lan mu ne ko damaa xam ne ku yor sa doom te tàngal xolam dana dem sawara mu ne ko ceer ma mu ne ko mbàkke de mu ne ko def naa samay doom li sa doom moo dab it joxuma ko may a joxoo ko may moona seen ñaari kaamil dafee daje kenn ku ne bind benn ma seet leen xat damu ci saa borom xamal ma ni ma na leen boole moo tax ma boole leen alxuraan a ko wax waaye yàlla ndigalam laa ciy doxe am ci Serigne Moustapha May la mu nam mu ko boo gisee jëmm ji di nga xam ne ka ko bind rek man lu mel noonu dégg naa ci gimiñam moom moomee sët boobee mu wax ci gimiñam ne man ku ma bokk lu ñam doo dem sawar mu ko billaahi wallaahi moo ko ku ma bokk lu ñam doo dem sawar lii lépp ci keppaaru kan maam Thierno Ibrahima Faty dëgg la nga seet ci biir kër sëñ Touba gi doom yi fi ne ak kër yi fi ne kër gu fi amul doomi Thierno amul dëgg la doo génn kër sëñ Mourou Moustapha ñaari doom yu bokk ndey ak baay kii baay mi ngi nii kii Mbène Fallou kii moo daa Balla jur ko kii Serigne Cheikh Awa Balla jur ko ndax yem na ca jàllal kër Serigne Fallou ka jëkk ca kër ga jabaatu maam ca topp dooy maam Thierno boo kër daju wallaahi hmm? jàllal kër Serigne Abdoulaye ana Abi Jaxate moo jur am sa soxna bi jaxate ak soxna say jaxate ñoo bokk ndey ak baay say jaxate njox ko sëriñ am satu demal ba kër sëriñ ab sëriñ sooy bu mbàkke koo fay fekk samat dëggal seex euh, say ndax foofu la yem doxantul ba xilaafa nga xëyee fu yendu ji kër sa yëpp du xaaju maama seloo soxna bu sa mbàkkee ko jur soxna bu sa mbàkke ceer na biir Modou Mbacke ma dem ak seex mi ko wut te ñoo bokk ndey ak baay yemu fa de Serigne Fallou imam bintoo ko jur bintu Serigne Abdou Khoudoss Ceerno laata ci kër Sëñ Bamba agab laa déggal damaa dégg da ngeen maa déggul euh, fa ngeen baal ma àq yi ci des ñu war a continuer bari na euh, ñu ngi am mbégte mu yaatoo yaatoo suñu xol sedd na guy euh, Serigne Abdou seen a nga nale mbaa di doomi Serigne Abdou ñu naan ko sëriñ Koso gànnaar ñu duppee ko it Serigne Koso génnul Ceerno di leen liggéey liggéey boo xam ni der la mu takk ci ndiggam di taxaw maam Balla Euh, ak ah, kum fi dajeel ci mbokk ak taalibe yi ñëpp ñu nga ca maam Balla wax na ma ni ñetti fan ñu ne ñu wàcceel ma kaamil kon lu alxuraan man te ku xam lu alxuraan tele xanaa ñàkk dégg ñetti fan mooy wax de maam Balla ñetti fan ñu ne ñu mu jébbal ki dem ba xam boobu moo ko doon jàng waaye boo fonkee sa baay ñu naan ko ceerno gànnaar dana am foo teg maam Balla ñoo bokk Mirina ci soxna Asta bokk Marème Balla dellu daje Serigne Modou Balla fi nga ko teg ak ni nga ko jàppalee boo gisan kooka doo ko a roon man nag Serigne Modou Balla ay sama Serigne waaye maam Thierno ay sama Serigne bàyyi dama taxaw buntu kër Sëñ Abdou Khadir màggal gi ñu jox ma kàddu ga may leen li ma daal dalu bu kenn ñu ne lan ma ne sëñ Bamba ngi mët téeméeri mètre sëñ Abdou Khadir a ngi nii dox fi diggante bi sëñ Saliou ngi ne tëdd keneen na ma wóolu waaye man Amadou fii ma taxaw di wax ma faatu woon daañu ma yóbbu daaru kenn du ma suutu ba man Amadou laa man man man daaru képp la duma leneen te duma doon leneen man daaru képp képp képp la bu ma taree Faatiha mu jub daaroo te saa bàyyi su bàyyam aw jàng kon borom daaroo baat bi may tàggoog yéen sëriñ ma numbe jeeg mooy wax nee na maam Thierno daa nekk daaru sëriñ Tuubaa yebal ko ni ko ma numbe mu ne ko Mbàkke mu ne ko kaay dem ca Thierno bàyyi moom noonu betta am juróom-ñetti fan ci kër gi mu déggaat baatam mu woolu ko mu dikk bàyyi moom nu moo ma ni boo ma ko jëlee téeméeri xer yónnee ma ko dinaa la nettali lu ma suñ Bamba ceer na wax ma ma gaj téeméeri xer oto bu root andi ca gànnaar ca yebal ma teg ci fukki xer bu dikkee ba téeméeree ma tey ma dikk ni ko noonu mooy wax de mu ne ma dama am ñaar fukki at ak juróom boo bindee sama tur ci alxuraan du ko xam sëñ Tuba yebal ma ca Ceerno ma të bañ ba moom juróom-ñetti fan mu woo ma ni ma man numbe ne ma ne ko Mbàkke mu ne ko xanaa ki ma dégg du sa kàddu mu ne ko akay mu ne ko yebalu ma la woon mu ne ko akay mu lu tax demoo mu ne ko ma wax may ko waaw mu ne ko lu tax demoo mu ne ko la ca Masamba yow la ca Seex Anta yow la ca Seex Rafaat yow la ca Ceerno moom yow du la fi bàyyi di dem ci kenn mu ne ko man numbe mu ne ko Mbàkke mu ne ko xanaa damaa ne ku ma bëgg nga am loo dootul ñàkk ceerno la lay boole. dëgg la ba ma fay dikk am naa ñaar fukki at ak juróom mënumaa bind sama tur maam ceerno dima sàmm mooy mbaam ñu naan ma ñebb. nee na toog naa ba bindu kaamil ci sama loxo ci ànd googu yi ak ceerno ba kaamil boo ma jox ko borom daal. moo tax keroog sëñ Goda Balla wootee liggéey boobu yi daf moo ca jëkk a joxe baraak ab baraak ak junni ak doomam ju jigéen te tàmbalee guñ lenu am yàlla ni yàlla dimbali ba nu jàpp ko te bañ ko boole amiin voilà ñoo ngi dawaat lii direct la fausse alerte fausse alerte la direct la fausse alerte la li gën a wér daal mooy li nu am daal lan tàggoo foofu sa ñab sa ñab ñam yi danañ añaat bu nu yàlla mayee bakkan danañ reeraat bu nu yàlla mayee bakkan ñii toog nañ fekki bëgg-bëgg mënee su la raxas mbaa ñuy mos wenn ñam te jigéen ñi ak góor ñi boolewu leen nag lu dootul jeex añub tey bii doyutub añ reer bii doyutub reer soxna xadiloo mii bàyyi ñaari mbokkam yoo xam ni ñu nga ca senegal war a añi ab liggéey loola mënatu caa faj dara waaye li ci des bu sañal daañu fi gën a yàgg ña dem buñ sañal daañu dajeeg njéggalub yàlla mënoo fee toog nag nu lay xoole bàyyi seex naa la neen lii ab daana du diir de day joxoñ mu daan te coupé ku tong defe naa kii mën na laa tong ndax yaa rekk ko seex sëñ bamba ak ceerno baalee ko jur soxna moom yi sëñ bamba Modou Maxtaar seexaw bal wax naa la lu leer danoo bokk taxaw ma ne ko koo seen ñaq yi wër ko muy wetti sa ñambaas yónniwu ko ginaar gu ñame waxtaan waxu mu ñu ne arrêté ko sa sa ñambaas waxu sëñ Cheikh Khady sëñ Touba mooy maam Thierno lu ko mottalee alxuraan la sa du bàyyi sa ñambaas def na lu neex daa ma dem ca mu ba yàgg bu ko tàggu rek su ma baax na mën yi. waaw na ñëpp tàllal sëriñ bi ñaanal. soxna Aliou. Xadi Lo. nañu ah, ko tàllal Xadi Lo bala ñu andi lekk rek ndax lekk. Eh, ah, waaw defe naa ko de lekk dina forox. lekk dina forox dana ñàkk ñor dana manqué forox. nee nga toog déglu. waaw waaw waaw. déedéet. ok loolu laa bëgg na. ah na sakk de. man damaa la waaye su ma laay bàyyee boor bi daa am témoignage moom bëgg a def rek. ñëpp déglu. dégg bisimilah. bisimilah. loolu macha allah. bisimilah. jàll si leen xañ ngeen jàll si leen waaw day wër ah, waaw waaw bisimilah Mbacke yéen ñi ci biti te déggu leen ko Serigne Abdou mu ni mi ngi may nuyu bu baax a baax nee na di nuyu Bamba Mbuub mii nga xam ni toolam mooy di bégal jullit yi ak taalibe yi ci Serigne Touba. muy baax la. ma daa ko yàgg mu daa ko yàgg a fekk Tenerife. muy waxtaan Serigne Touba. nee muy waxtaan lool Serigne Touba. ak boole ko daanu ñàkk mu ñàkk. nag waxtaanoo yàqul dara ci li ko war ci liggéey. di nuyu Serigne Khadim moom Serigne di nuyu nag seriñ Khadim moom Serigne Abbas moom Cheikh Rafat. ak a ñëw léegi. nee di nuyu Cheikh Abdou. moom soxna moom soxna Baali moom soxna moom i Xaadimu Rasuul ak Sëriñ Murtala ak maam Thierno doomam. di am mbégte ci fekkee jataay bi. ne am mbégte lool ci teewe jataay bi. ndax bi ma ñëwee aéroport laa ne bi mu dikkee aéroport la woo Modou Diop. ni ko dinaa ñëw Paris suba ci 13h30. ne dinaa ñëw Paris ci 13 h trent mu ne suba dañuy màggal ko suba de dañuy màggalal Sëriñ Modaw Balla. màggaloon naa ko alxames. ne màggalal na ko alxames ca Daaru Muuti fa Baye Seex. su ma ko màggalaatee fii ci dimanche bi. ne bu ko màggalaatee fii ci dimanche ji. ak yokkute rek la. ne loolu la yokkute rek la yaari màggal ci borom daaru ci men wen eh, ci lu matul fukki fan. barab bii nag. ne barab bii nag. ki sañ ci daara jii. ki sañ ci daara jii. di sañ Ceerno Jóob. di sañ Ceerno man de maa wax ci moom fii ba suba tala jeex. ne man maay wax man ah Serigne Abdou. ci sëñ Thierno Diop fii ba suba te wax ja du jeex. jàpp naa ni kër gii. jàpp na ni kër gii. ku sant Mbàkke ku ma fi njëkk a fanaan bariwul. ku sant Mbàkke ku ma fi njëkk a fanaan bariwul. bañ fi daa ne. bañ fi daa man moom xadiloo. nee man moom soxna xadiloo. ba mujj daaruloo nekk fi ak Seydou. nee ba yéen yàgg nag daaruloo nekk fi ak Seydou. bari na kilifa yu ñu loo bi ne bu ñu leen tuddoon tey. nee bari kilifa yooyu bu ñu leen tuddoon tey. ñu xa ñëpp xam leen. ñëpp xam leen. te daawuñu jóg fii. te jóg fii. daanañ fi ñëw. daanañ fi ñëw. ba génn fi. ba génn fi. ñaari nit wala ñett duñ leen gis ndax boobu kër gi xumbul. nee na daanañ fi ñëw ba jóge fi te ñaari nit wala ñett nit duñ leen gis ndax boobu xumbagul. masata daawul jóg ci kër gi. masata daawul jóg ci kër gi. toll na ay jamono yi lu ñu fi xéwloo. ne toll na ay jamono li ñu fi xéwloo. yi ma Cheikh Amar daa andil fii. li ko Cheikh Amar daa andil fii. ñu daa ko def ci frigo bi. ñu daa ko def ci frigo bi. ci am lu mat weer te gi ni seere la ci. xadiloo soxna la ci. Mat Ba mi moom Carrefour automobile. ne Mat Ba mi moom Carrefour automobile. saa yu ma saa yi fi dama naan xadiloo toggal ca. ne saa yu ma saa dikki fii day wax soxna xadiloo toggal ko. Cheikh Lo Dametal. Cheikh Lo Dametal. noonu. moom it noonu barki démb rek maa seere. maa ko indi fii ci kër gi. moo ko indi fii ci kër gi. kër gi. kër gi. day kërug Serigne Touba. day kërug Serigne Touba. te ñoom ñu nangu ni kërug Serigne Touba. te ñoom ñii kat nangu nag lii kër Serigne Touba la. dafa am benn bés. nee daa am benn bés. ma ne soxna Ndike. mu ne soxna Ndike. gis naa ci yow baax goo xam ni. gis naa ci yow baax goo xam ni. am tur woo xam ne dama koo dama koo bëgg la koo tudde waaw naka mu la mu ko wan la mu ne ko bëggoon tudde ndey ñëpp ne dama laa bëgg la tudde ndey ñëpp damaa gis donga yi damaa gis donga yi fu ne la waay di jóge di ko jox ñam mooy fu ne la waay di jóge ñëw nga di ko jox ñam mooy jariñu waaye tur woowu dama ko mas a xalaat waaye tur dama ko mas a xalaat ni xadiloo mi rek moo ci jekk ni tur woowee kat soxna xadiloo mi rek a ci jekk nee na tax ma wax ko nee sëñ xaadim la ci seexloo may seere la ci seexloo may seere la ci keroog ba sëñ Abbas ne keroog ba ko sëñ Abbas ne xaadim daa war a jógee fa muy jànge xaadim sëñ daa war a jógee fa muy jànge ñëw Paris ñëw Paris fan la fa mën a nekk bu fan la fa mën a nekk bu demee waaw waaw ñëw ci loxo ne. dinaa la ko tegal ci loxo yoo xam ni. bu demee bu demee. dana xam ni kër googu ak sa kër gi. dana ni kër googu ak sa kër gi benn la. boole ko xadiloo. boole ko soxna xadiloo. keroog bi ma demee Hollande. keroog ba ma demee Hollande. Alaaji Abdou Dieng. Alaaji Abdou Dieng. bokk ak Soda mu Aliou Lo mi bokk ak. Soda mu Aliou Lo. Soda mu ni ma am na sama jarbaat bu nekk Paris. ne ko am na sama jarbaat bu nekk Paris. bëgg naa fu mu ne. bëgg naa fu mu ne. ma ne ko bu soobee yàlla. mu ne ko bu soobee yàlla. dinaa la ko tegal ci loxo yoo xam ni. dinaa la ko tegal ci loxo yoo xam ni. bu melee na mu war a mel. bu melee na mu war a mel. du ko xàmmee kër baayam du ko xam du ko xàmmee kër ndeyam du ko xàmmee kër baayam. yebal ko ci kër gi. yebal ko ci kër gi. seexloo nga ne. seexloo nga ne. dem na ba diggante ma xadiloo. dem na ba diggantee ma xadiloo. moo raw diggante ma Diop. moo raw diggante Modou Diop ak Soxna Xadiloo. kon loolu li may wax am na am na firnde. kon looy lii ma leen wax leen lu ci ne damaa jël sama baaraam teg suñ sëñ Thierno bi muy sonn. sëñ Thierno bi muy sonn. nekkoon ca Daara ja. nekkoon ca Daara ja. li muy yàgg yàgg France. li muy yàgg yàgg France. li mu fi indaale woon mos mos tàqale moom. ne li mu fi indaale woon. ci jikkooku melakaana ku taalibi mos a tàqale koog moom. fonkoon alxuraan. fonkoon alxuraan. fonkoonuk taalibi fonkoonuk taalibi. ci loolu laa ko ci loolu rek laa ko xam. damay wax ni koy sanc ne fii bañ koy sanc ma fiy daane bi ma fiy daane bi ma fi daane escalier yi ne bi la lalalee basan nga mën fee fanaan ne buñ la ci lalalee basan nga mën fee fanaan benn hôtel waaye loolu lépp nag waaye loolu lépp nag li tax mu neex li tax mu neex yaatu xaadiloo ne yaatu soxna xaadiloo ñun ñëpp ñun ñëpp buñ laloon fii di fi fanaan buñ laloon fii di fi fanaan du tax kanam soppeeku. nee du tax mukk kanam gi man li ma ko ko mën a seedeel. gis naa ku baax ba tay gis naa ku baax ba tay ndax baax baax benn fan yomb na. baax benn fan yomb na. juróomi fan yomb na. juróomi fan yomb na. fukki fan yomb na. fukki fan yomb na. weer yomb na. waaye bu baat ba nga waxul nag mooy dëkk caa jafe. te moom ci la nekk. te moom mii nag ci la dëkk. Mor Cissé mii di doom ndeyam te gaañu bu yàggul. nee Mor mii gaañu bu yàggul tey doomi ndeyam. keroog damaa wax Modou Lo magu Khady Lo mii. nee naa wax sëñ Modou Lo magu Soxna Khady. ni ko taxaw bii ko sëriñ Seexum Sëñ Abdu Xaadir taxaw. nee taxawaay bii ko sëriñ Seexum Sëñ Abdu Xaadir taxaw. bu mu leen yéem. bu mu leen yéem. da ngeen di ne sëriñ Seex daa laal xam ni sëriñ Seex day Daaru Musi. te ñun Daaru Musi liñ xam. te ñun Daaru liñ xam. bu fi ab taalib bi jógee. bu fi ab taalib bi jógee. nga taxaw ko. nga taxaw ko. ba jébbal ko sunu borom. ba jébbal ko sunu borom. ndax nit ki bu ngeen ànd. ndax nit bu ngeen di ànd. mu yor addiyaam di la jox. mu yor addiyaam di la jox. yor xaalisam di la jox. yor xaalisam di la jox. jur ay doomam di la tuddee. juri doomam di la tuddee. lu mu gis lu baax jàpp ni. yaa lu mu gis ci lu baax du ko jekkale kenn ku dul yow. bu demee ba nga xam ne léegi loolu lépp amatul. bu demee ba loolu lépp amatul. jébbal ko suñu borom rek a fa des. nee na ko suñu borom rek a fa des. kenn sëriñ bu ne war naa mën a fexe ba ba defal ko ba jébbal taalibe. nee na sëriñ bu ne war naa góorgóorlu ba taalibe ba daan def loolee. lam ko doon doyee bu keroogee man koo def. waaye xadi mooy lay wax ni Serigne Cheikh taxaw na sëñ Mor lool. war ah, naa maa joor mu taxaw. ne war na mu taxaw. mu ne ko sa baay de. mu ne ko sa baay de. li tax mu ànd ak suñu mii. li tax mu ànd ak sëñ Cheikh mii. bis bii moo taxaw. bés bii rek a taxaw. gis nga nag ni ko suñu Cheikh taxawoo. gis nga ni ko sëñ Cheikh taxawoo. feneen foo mën a nekk nag yaa xam. feneen foo mën a nekk nag yaa xam. suñu Cheikh moom li ko war def yàlla. nee nag ñu ngi ñaan yàlla. yàgg koo fekke. nee na yàgg koo fekke. nee liñ fi wax lépp te muy njariñ itam. nee liñ fi wax lépp te muy njariñ. daanaka yow li nga wax waru mu ci mën a teg nee na li Amadou wax waru ci war a teg benn baat. ndax yow diggante yow dafa sori. mu ni suñ diggante daa yàgg lool te sori. doo ràbb ci man. nee na du ñeeño suñ diggante. bàyyi nga ci ñun. nee bàyyi nga ci ñun. ndax sëñ Ibrahima Samb. ndax sëñ Ibrahima Samb. maam Thierno Birahim laa àndaloon. sa waajur bu jigéen. sama waajur bu jigéen. maam Thierno ko boole woon waajur Baye Cheikh. maam Thierno ko boole woon ak soxna Khady Diouf. lañ daa seq ñoo ko xam. lañ daa seq ñoo ko xam. ay yoo xam nga ko. waaye xam naa ko. Eh, li nga doon wax. mais li ma doon wax. naa la ci wax loo xam ne Baye Cheikh a ko. mais dana ci teg loo xam ne Baye Cheikh ko ko wax. ndax da nga ne sëñ Abdou Khoudoss. da nga ne sëñ Abdou Khoudoss. kër ga sëñ Modou Awa Balla la ko jox. kër ga sëñ Modou Awa Balla dëkkoon la ko jox. néegu ñax ba fa newoon mosu koo changé. néegu ñax ba mosu koo changé. Baye Cheikh nee na ma. Baye Cheikh nee na. jàkka jooju ci kër gu mag yi li def ko def ko mag. mais jàkka joojee ca kër gu mag booy dugg jëkk cee yam li tax mu defar ko ba def ko marbre. keroog bi ko maam Thierno di sant sëñ Modaw Balla. keroog ba ko maam ceer di sant sëñ Modaw Balla. boobu moo ngi fanaan ci néegu ñax boobu. booba ma ngay fanaan nag ci néegu ñax boobee ñu soppi tey ba def ko marbre. te ci néegu ñax booy dugg kër sëñ ci néegu ñax boobu it sëñ Mor Abala dëkkal ci biir kër sëñam. bàyyi seex a ciy tënk boobu. booba bàyyi seex a ciy tënk. bàyyi Idi mooy bëkk néegu sëñ Mor. bàyyi Idi Fall di bëkk néeg ba. maam Thierno yónni ndaw la ni ko boo demee. bàyyi sëriñ maam Thierno yónni ndaw la ni ko boo demee. wol ma wol ma sëñ Mor. wol ma sëñ soo mën la àgg ci moom. soo mën ta àgg ci moom. na nga fëgg seex wax ko. na nga fëgg seex wax ko ko. ndaw la ba mu ñëwee mën ñi la fëgg. nee ndaw la ba mu dikkee bàyyi seex la fëgg ne ko sëñ bi sëñ bi nee nañ ko wool sëñ Modou. ne ko sëñ bi nee nañ ko wool sëñ Modou. bàyyi Thierno ma dem fëgg bàyyi di ko nee sëñ bi sëñ Modou maam Thierno yónnee di ko woo. bàyyi Cheikh dem fëgg bëkk néeg bi sëñ Idi ne ko nañ yëglu ni sëñ Modou borom daaram koy woo. ñee mu ubbi ni ko wol ma ko. mu ubbi ma ko. ñee ma ñëw muy ma de ku mu yónni woon. ko turam. mu wax ko turóo. suñ Mourou nee na Baye Cheikh ne suñ Mourou jàpp ba pare ne ko nañ dem wuy ji nga gunge ko. nee Baye Cheikh jàpp sëriñ bi jàpp ba noppi ne ko nan dem wuy ji sëriñ bi nga ànd. na biñ demee fekk nañ borom daaru julli ba sóonu. nee biñ dikkee fekk borom daaru ba sóonu. boobu nga ne Baye Cheikh nee nañ ko teg. muxraas gi ma waxante sëriñ Touba daa ci tàngal ataaya ne moom la fekk maam Thierno teg ko wékk ci satal. dama ko waxee ko laaj ndax mosuma ko dégg. ndax loolu ñu ko waxee da koo mos a dégg muxraas. nee bi sëñ Modou ne salaamaaleykum mu ne ko koo àndal. bi sëñ Modou ne salaamaaleykum mu ne ko ko àndal. mu ne ko seex. mu ne ko sëñ seex. mu ne ko mën naa fekke wax ne ko mën naa fekke wax ji. waaw damaa bëgg ngeen dox fukki nga dox fukki jéego ak juróom-benn. mu ne ko damaa bëgg nga dox fukki jéego ak juróom-benn. defal ma fi jàkk. defal ma fi jàkk. ne sëñ Modou ne ko jàkk. ne sëñ Modou ne ko jàkk. mu ne ko mag bu dee wax da ngay ba mu pare nga soo ko bàyyi ba mu noppi nga doog a wax damaa yëg ne tànk yi daa commencé métti. damaa yëg ne tànk yi tàmbali naa métti. dootoo mën àgg ci jàkka ja. dootoo mën a àgg ci ja ca dëkk ba. moo tax ma bëgg nga defal ma fi jàkka. moo tax ma bëgg jàkk ci biir kër gi. bu bët setee. bu bët setee. na nga wax dongo yi. na nga wax dongo yi. ñu dem wuti ay jën. ñu dem wuti jën. defar néew mag boobu. defar néew mag boobu. nee nag su ma su jamonoy dox. nee bu jamonoy dox. ba ma nekk maam Thierno. ba ma nekk man Baye Cheikh ma nekk maam Thierno fekke woon loola di ca seere. te fekke woon ndigal loola te di ca seere. waaye ma koo defar loo waat. damaa dee ni boobu borom daaru sëñ Moodu lay wax waaye man mii la bëgg la génnoo. looloo tax ma defaraat. ne looloo tax ma defaraat jàkk ji. suñu baa ngi nuyu ñëpp. ne Seex Rafaati Baay Seex Xaadim mi ngi nuyu ñëpp. ndax biig bi ne ñëw fii. ne biig bi mu ko ne mi ngi dikk fii. da ko ni nuyul ma xadiloo. nuyul ma bokk taalibe yëpp. lool laa man lu mu ciy wax. am kontaante. fii wóor na ma ni. ndax fii wóor na ko ni. ñu bëgg sëriñ Tuubaa ngi fi. ñu bëgg sëriñ Tuubaa ngi fi. ñoo xam ne ba leen xamee ba léegi. ñoo xam ba mu leen xamee ba léegi. ci loolu rek la ñuy xëy ci. ne ci sëriñ Tuubaa rek la ñuy yëngu boobaak léegi te mosuñu koo génn. Ousmane Diop ne baa koy xam. ne sëñ Ousmane Diop ba ma koy xam. ca Kataaña. ca Kataaña. ak léegi ca naa léegi. na ma ko xamee woon dara mosu. na ma ko xamee woon ba léegi dara jógu ci. ñi nga xam ne nag damaa bokk ak ñoom borom daal. ñi ma bokkal nag borom daal. du ma seede kenn ku ne. xam nga li nga doon ci man xam naa li ma doon ci yow. te lu baax amul tariix tariix mën naa am mais lu baax mu ñëpp ko bokk. tey am na ñu ñëw ci jotaay bi ñëw ñu bokkuñu ñoom tariix waaye li ñu boole mooy lépp mooy lislaam Souleymane mi mën naa ko tudd mën naa tudd Massimé ak ñeneen xëy na ñoo xam ne sax xëy na du ñu wër te ñu ngi si te xaw ma leen ñoom it ñoo ngi leen sant bu baax a baax ndax buñ ñëwoon xëy na bu ñu jàppale woon ne suñu bopp duñ fi ñëw waaye xam nañu fi seen kër la ñoo bokk bëgg lu baax ñoo ñoo bokk li ñuy xañ beneen bi ci desam na wax naa ba jeexal te tudduma suñ bàll suñ bàll dafa maa jege man de du ma ni maa ko gën a jege waaye moom fi ma toll ci moom xam na ko fi ma toll ci moom xam naa ko yàpp naa tam bari na lu dox suñu diggante loo xam ni ku dul maanaam moom ak suñu borom xamul mas nañoo ànd daaw dem fekk mu ñëw ci man ma ne ko dafa am ajjuma jot damay yem kër baarataan nañ dem kër baarataan ñu dem ma présenté ni ko kii de buñ ma ne woon sa génération bi nga bokkal maam bi Birahim tànn ci ko la gën mën naa ko tànn baara ni ma suñu Abdou kenn gën na la ma ne ko ah man na jàpp naan suñu bàll mi moom a gën. ndax dañoo yàgg a jaxasoo ma xam biiram xam biteem xam xol bi ko suñu defal. lu waay am ak lu mën a doon rek ñu yéene ko. te lu mu amit nangu ko bokk ñëpp. dëgg mbirum jàmbur itam. ba nangu caa sonn lool. ba pare nag gëm suñu borom. Ah, gëm suñu borom mooy lu sum borom dogal rek mu neex. dëgg la man dama naan da maam Thierno ne woon suñ tubaab nag ma ñaanal lu yàlla dogal mu neex. waaw jàpp naa ne ba suñu bàll lu suñu borom dogal rek neex na. Mm-hmm. mën naa koo teg foofu. la kon nag yal na ko yàlla bàyyi mu yàgg ci man de damay wax ni waxuma la fii. mais suñu dëkk bi ne Darou Mousty ñoo ko gën a soxla ñëpp. la ndax xam naa lam fa ban. dëgg la xam naa ay qualité xam naa li man ci ci ci defar. mel noonu baax na ci jamono. Euh, jërëjëf sëriñ bi li nga wax ci Souleymane rek laa la bëgg a wax Souleymane bu ngeen fi toogaloon mu mën leen fee toogal li sëriñ Tuubaa bokk ak Alaaji Maalik Xadi. waaw Amadou Farimata ak Thierno Farimata bokk ndey ak baay. Ceerno jur Xadi Mbàkke mu jur Laaj Xadi Mbàkke mu jur sa fetu ñaan ñu dénk ko Laaj Maalik maam ci Abdou wuy siw leen daa ñëw ci yëfe sa wàll bu jur jaara bu sujur lañ ko xaalis boobu ak nit ñi mag yi li tax ñu ne maam sëñ Bamba bokk ndey ak bàyyi nag Ceerno daa raw ci sëñ Bamba da cee seey day benn xam nga nuróo bu ci dara desul lu may ngaal ma xool soo làmbañ nuróotuñu dañuy benn nga xay làmmeñ yu ñàkk nuru rek tax nga xam ne leen buñ la nee Ceerno bokk ak Sëriñ Tuubaa ndey ak bàyyi ku xàmmeewul day defe ni dangay leble waaye alxuraan nga wax ndax kenn képp la Ahmadu Farimata Ahmadu Soxna Buso Ahmadu Soxna moo jël sa wàll mu jur Jaara Buso ki Jaara jur xam nañ Ahmadu Soxna Buso bi ma waxan ki tudd Asta Waalo rek mu jur Jaara duma ko romb kooku képp laay waxaat amut soxna bu so moomee nag juras tawaalo moo dal li juraab sa mbàkke yóbbu ko kooke jox ko sëriñ kooke sa njege yi moom ca faati sa ak aminta jaga ak ndumbe xari ñu jël faati sa ma ca gën nag jox xaali ma matata sëli moom ci maam borom nit ñi ni neg leen boo lëggee ma yóbbu leen àjjal seen yaar ndey dajalañ ci kenn door àgg ci sëriñ Mamadou Anta Sali ñépp ngi taxaw maam Balla waaye kër góor a xari Ndeye Fall mi ngi taxaw bu baax soxna Khady Lo bi am kilifa ak bañ te bëgg lépp di lenn xam ni moo war a fekki soxna Khady moo war a lii am te fii aman démb ba dara amul fii aman démb ba kenn dikkagul kon lu dikkati démb te nga bëgg noppal dong nga donga yi muy adresse boobu da ngay joxoñ rek ñëpp xamandoo ko da nga naa kër kër Thierno Diop ñëpp ngi toppatoo maam Balla. waaye mut jóob mi xam nañ doo fa dem te fekkoo fa waa kër góor a xëri. loo gaaw gaaw da leen fa fekk wala ñu fekk la fa. Mm. kon loo wax ci maam Balla ku xam sa jikko mën na koo xam dama koo mënatu la wax waaye Mbàkke yow bu la sëñ see xaddi juruloo nit sa jikko ji am na num la mën a may. Mm. bokk nañ dem Milan nga ànd ak sa doom yi bàyyi. am ko bari xaalis bari xaalis laa wax de ku bokkut ak yorus xaalis ni ko damaa bëgg a dugg ci yoon te bëgg a jébbalu mu xañ ko boppam ni ko jébbalul ci kii sa yóbbu sa jikko may na la lu ne yow xam nga ko man xam naa ko. comme que benn la ñun ñi suñu waajur la te boo ñëwee da nga yaakaar ay morom lañ. ci suñu waajur la. waaw ndax Dakar sax suñu nag mooy bokk day day waxtaan ak ñun day débat ak ñun ne te suñu waajur am na ñoo mu taxaw bu fa taxawoon du seq ñun loolu. yéen Mbàkke mënuñu la bañ a ñaanal nga gudd fan. ñemeen loo nga sa bopp donga yi ba kenn ko ne daa mel ni sa kala. sa bokk yi nga jox leen cër. ba kenn ku mu ci mën a doon boo toogoon soxla wenn wéttal ci àddina buñ la nekk mu doon danga naa feexe bu na fu mu nekk bañ du sàng di bëggal nit ñi. bi ñuy denc moo si si. waaw dama ne Abdourahmane nañu profité ma dem ci barabu suñu Cheikh ma ñaan ñaanal ko. ñu ba àggal sama xel dem ci waxi soxna Bali. Mm-hmm. soxna Bali dafa ne suñu Cheikh naa di ñu koy denc su ne maa ngi ànd ak sama kenn du ko denc tubaab lañ koy boo seetee soxna Bali ni mu mel ci daar. Mm-hmm. seet suñu mënu maxtaar ni mu mel ci daar. Mm-hmm. am maa ngi fàttali suñu mënu maxtaar am na addi yu jum joxoon bàyyi Cheikh. sama kanam. keroog bàyyi sax def ko ne ma defal la ko jumaa ji wala mu ne ko bu la neexee sax pétrole ko fii taal. li mm-hmm. ma la ko joxee laa ci pare. waaw. suñ Mourou Maxtaar moom itam ñu ngi koy ñaan yàlla def ko. amiin amiin yàlla Maxtaar ku baax la. gore la gëm borom daal ku bëgg lu baax la gëm sa borom jox na sëñ Modou Awa Balla fas wu xonq maa fekkee tàkkusaan sëñ Modou Maxtaar. sëñ Modou Maxtaar. waaw. loolu moom képp ko ñëwee wax. li ma bëgg ak fi ma bëgg a àgg te boole koo mucc. te kenn du mën mënal dara mm-hmm. te tekki ëllëg du ma lim waaye ku yàlla bind ko dul sa jëmm ji mënalu ma ko yow laa wax boo dee ni boolewu ma ko ci nag boole naa ko ci maxtaar wax loolu sëñ Modou wëlbati ndomba gi wëlbati ku jàkkaarloo moom ko maxtaar li nga wax rëy na de mu ko maa ko wax loo ma mënalul saa nekkul waaye li ñu fiy séddale yow rekk yor ko duggi te Thierno rek ki ku dugg luus da lay may ndawal ba noppi may la ñaar keneen koo tudd ku dugg kese mu ne ko Moodu mu ne ko Mbàkke mu ne ko topp si mu topp si mu nga mu ne ko tëf ci biir gémmiñam ne ko Moodu mu ne ko Mbàkke mu ne ko danga am dara bëgg a jóg ma ko de damaa bëgg am dara ji te ma fekke ko nga fas fi kanamam ni bés boo amee dara sedd ma ci <laughs> lu toog ba ma dem këram ñuy màggal mu santaane ni kàddu dinañ ko jox amadu Samb ñu nopp mu may ma mool ma ni ko xalaatuma ni saw tur toll nga ni ma waaye moom may daa googu moom ci Daaru Musi mu ne ma ki ma ko yónni woon tudd ko mu ko yónni woon saaga ko ndey ko xam Moodu Muxtaar xam ko loolu Amadou Samb boo ma ko may loo woon mool fu ma jëm àddina ak àllaaxira demal yéen ma sama fas weexu ñu ne ko bare boo xëy nii boo ci safan juróom bari ko mu jàll mu ne ma daagul ak moom. aw fas daa mënta sëf saako ceeb waaye danaa la ji tegal bërigo sama oto dana ko andi. la ko sëñ Modou joxoon sedd na ma ci. dana ma jox kàddu ci ay bésam. waaw. taawal na doomam ni leen Amadou Samb mii bëgg naa ngeen jàpp ko ndax noonu waa Daaru Amadou Samb la am. billahi wallahi taala. loolu Mbacke nga am na genn màggal boo xam ne. waaw waaw ba waaj a commencé nga ne ci biti. waaw ma ne bu kenn commencé te amul sam dugg. ay sàndarma nga yebal du MDL ñaari chef nga yebal kenn ku ne takk mbaggam ba mu mu xool cérémonie bi gisul sama jëbb mu ne ana Amadou Samb ñu ne ko mi ngi ci biti mu ne wooyee leen ko bu kenn tàmbali cérémonie bi te ko. man Mbacke loo ma mën a def moom. télévision. caméraman sama jëmm ji yaa tax ñu jëkk ma koo dégg. dëgg yow yow. man la man. Italie ba mu jeex fu ma teg sama tànk ñu xam ne Amadou sàmba yow joxe nga fa sama bande ñu di ko dawal lu ëpp fukki at te xaw ma dinaa am huit cent ñëpp ba léegi sa ñëpp doo mën a defar nit. sa ñëpp doo bëgg nit sa ñëpp doo mën a jëriñ nit. dëgg la te jógu ci ba fii mu nekk. sa ñëpp du këram du yetti ndab. këram du yent nag fu ñu taaj taaj leen fa leneen loo wax ci baax ci nit yàlla jaaglu ko te gis nga sëñ Abdou mii dara kii xale bii dara ñàkk fu la jegewu wax naa la nii la mën na laa jox kilifteef waaye ku melul na nga war a mel dana la fa di ñëpp te doo dégg sama baat bi. jërëjëf si pourtant seere la. ah. ko si sëñ bi sëñ bi ñu ma si li si. bi wax mooy sëñ Dame Fati dama sa wax rak suñu abbaas la mu wax ni euh, euh, dafa bind ab lettre lu ma juróom-ñaari nit mu ci ay taalibe sëñ Modou Awa Balla ne ne ko nan ma ko jox te ko su dëggul leen bëgg daal waaye ba mu ñëwee sëñ mu daa daal woo ñëpp daal leen dem leen sa sëñ daam tey mooy seen mu teer jàpp naa ne loolu Euh, yombul jël ay nit ñoo xam ni ñu ngi say waaw nekk seen digg doole nekk say di la liggéeyal sa rakk laaj la ko ñu jox ma leen mu dal koy def ci saasi tegu ci baat hmm. loolu def naa ne ak mbaax mënut a paase loolu ak tamit ak nangul maanaam loolu lu ñu war a jàngat na tey ci jamono ji kon loolu day wane rek sëñ Muudu fa mu féete woon maanaam ay rakkam te jàpp naa ne foo dem ci kër borom daal rek danga fekk aw turandoom loolu ak jikkoom ak noom leen jàppe woon ak noom leen uufe woon loolu moo ko may kon jàpp naa ne euh, loolu liñ ci liñ ci liñ ci liñ ciy wax mooy ne man sëñ bi moom ma ko waxoon mu ne sëñ Tuubaa da ko mas wax mu ne maanaam man alquranul karim ak fonk kilifa maam da ko fekk ci askanu Mbàkke waaye def ko si ñoom kon képp ni ñu toppante comme ni ñoom sëñ Kos Asuloom yi ak ñoom sëñ Cheikh Abdou daanaka mën a peut-être ñoom mag wala may ñooy maase mais ay ay père lañ may wax ak ak waa jàppale comme seen baay loolu noonu moom kon dëgg la ne kilifteef gi ñu doxalante maanaam loolu maanaam lu neex la daal si nit kon jàpp naa ne si sëñ Modou loolu lañ ci doon wax ci tënk comme que liñ soo jot wax bëri na ñaareel bi mooy comme ni ko sëñ Abdou waxee sànq man bi ma nekkee bi ma nekkee Abu Dhabi jóge nekk Dubaï war a ñëw fii transfer ñëw Paris 4 war a kii sa sëñ sëñ Abdou bi ko sëñ bu waxee euh, mer loolu la te jàpp naa ne nekk nañ fi ba tey ji ñu fi ñëwaat jàpp naa ne nekkin bu rafet ak jàpp gi ñu jàppe woon comme ay doom kër gi maanaam lu mu xat-xat ak lu mu man di mel kenn mënul gis euh, maanaam du te loolu du merloo dong maanaam ñëpp la tey ji du mu jóg wala du mortal wala dafa comme si kenn koy gis kanamam soppeeku wala mu wan benn melokaan jàpp naa ne loolu kon ñoom doon nañ ko seen waajur ñoom it mm. man bàyyi ceerno fekk moo fi waaye ñoom laa fekk mm. waaye naa ne tey su fi ñëwaat ba léegi maanaam nekk rafet bi mu fi nekkoon ak maanaam loo xamante bi ne jàpp naa ne lu ja lu jafe la ndaxte nit ki peut-être mën na mën am benn melokaan waaye du ci mën a sax waaye ñoom day mën nga fi nekk ay at yu yàgg-yàgg waaye na leen fekke woon noonu nga leen bàyyeewaat mosu leen a ñëw fekk ñu ñu kanam bu soppeeku wala lenn te nit yu mu bëri bëri ci feeñ kon jàpp naa ne loolu tamit ñu ñu ñu ñaan yàlla mi nga xamante bi ne moom moo mën lépp mu fay leen seen jëf te it Baye Thierno mi nga xamante bi ne moom moo saxal lépp maanaam lépp luñ fi am si tiyaaba rek moom mu fekk ko fa ca ca ca la gën a kawe kon li ci dal topp mooy maanaam ñun ñi nga xamante bi ne dañu ay taalibe ndaxte dëgg la suñu ay sëriñ ñu baax lañ ñuy wax waaye ñun tamit nañ jéem a xam ne kat ni ko borom daa doon waxe na nit ki ku la mën di jur te doo jaamu yàlla gënoo kenn mm-hmm. lu ñu la mën di jox te du liggéey tamit du la jariñ dara mm-hmm. maanaam fexe bañ xam ne ñoo fi gën ay sëriñ ñu fexe di ko wane suñu ay jëf mm-hmm. maanaam am ay jikko yoo xamante bi ni képp ku ñu gis maanaam luñ nekk ñoo xamante bi ne na sëñ bi doon waxee ne benn bi saytaane daf ko dikkal ci ak mujjug jamono nee na lu mu lu mu def rek saytaan toog di ko xool ne sëñ bi neen ba mu yàgg saytaane ne ko a xam ne ni la yàlla maye noonu maye ndax sëñ nee na dafa bu musaara ñëw dafa am lu mu daan def muy dem keroog nag def na ko defaat lu ne seytaan toog di ko xool ba yàgg seytaan ne ko ñi la yàlla maye noonu la ma may waaye daf ma may lu bon xam naa ne yaa ngi waa jóge ci saxir sëñ bi ne ko luy say tànk mu ne ko si liggéey bi rafet na wér na wér goo xam mënu mu koy yàq waaye dinaa ko ñaawal mooy sëñ bi ne ko mu ne ko noo koy defee mu ne ko danga fi jóge ay nit nekkuñu si lañ war a nekk bokkuñu li nga woote woon ma leen dem leen di wuyoo kële ñu lay wuyoo te kenn du si man daal mm-hmm. mm-hmm. kon ñun suñu bopp bu fekkee ne ñu ngi wuyoo Serigne Touba wala ñu nekk ay jullit tey jii gis nañ àdduna bi ni mu mel ci fu ñu tuddee baat boo xamante bi mooy li gën a noble ci lislaam muy jihaad tey jii dem nañ ba pervertir ko ba nga xamante bi ne yàq nañ ko kon jàpp naa ne ñun li ñu war a gën a mënal suñu ay kilifa mooy fexe ba ci suñuy doxalin ak suñuy jëfin ñu fexe ba bu ñu nee Serigne par exemple moo fi gën ñun ay taalibeem ñu fexe ba gën fi bu ñu ay jullit la ñu ne lislaam moo fi gën ñu fexe ba gën comportement fu ñu man di nekk mooy li ëpp solo ndax di waxtaan ci suñu kilifa ndaxte boo ko seytaane waxee sëñ bi danay kon daf daal di woote waat daal ne mbaa du ngeen di yàq sama der maam yàq sama der gi ñu ne ko loo si jublu mu ne di woot di mu wuyoo te nekkoo si la ma nekkoon te loolu borom daaru am na ca firnde ndaxte dañu wax ne ba mu demee Mbàkke Kajoor di ko ziyaare ji ba mu demee Mbàkke Kajoor di ko ziyaare ji boroom daaru dafa dëkkoon ci biir kër gi kër Serigne Touba benn bis mu daan jàng alxuraan di jàng jàng ba pare tëj kaamil bi sëñ bi fekk ne bi mu fi ñëwee fekk muy jàng alxuraan dafa toog ci ginnaawam daal ba ba sa borom daaru jàngee ba pare tëj kaamil bi daal di wax alhamdulilah sëñ bi soog koo nemmi ko ne quoi ñu ñëw pare mu ne ko alhamdulilah googu nga wax war na la parce que am nga yóbbal te nangu ngaa dem ko am na ñoo xamante bi ne ñàkk ab yóbbal tax na mënuñoo dem am na ñoo xamante ni dama leen jox seen yóbbal yóbbuloo wuñ ko waaye ko lekk yow nag am nga yóbbu te nangu dem def naa ne kon ñu war mooy fexe ba xam ne sëriñ bi la mu waxoon ne taalibe gi su ko indee fa ko jëlee su ko gisoon lu ko gën indil ñu ko maanaam ñu xam ne loolu rek mooy lépp ba pare tamit fexe tamit di teg suñu tànk ci lu ñu mën ci seen i ndigal di jéem a tamit daw seen i tere di ñaan lépp luñ fi def nga xamante bi ne mooy ak ñaan ak lépp sëriñ Maam Balla mi nga xamante bi ne suñu kilifa la suñu lépp la jàpp naa ne ñun ñëpp ko bëgg suñuy xol jàpp naa loolu moom jërul sax ñu di ko wax ñun ñëpp ñoo ko bëgg ñu ñaan yàlla may ko wér goo xamante bi ne dana nekk wér goo dana sa jóg ba dund ba dund sàppi ko lépp lu mu yaakaar rek yàlla defal ko ko ndax ñun ñëpp yéene nañ wér yéene nañ ko gudd fan ndax wan nañu ko tey nekk na suñu suñu suñu suñu kilifa nekk tamit suñu fierté ci dëkk bi ndax koo xamante foo ko tudd ci dëkk bi ñëpp seeral ko bu baax foofu noonu yow mënoo lu dul rek di ko sant ndax jàpp naa ñun fi mu nekk nii lenn rek lañ ma santal sañ Tuubaa mooy ak njub ñu ko defee maanaam kon jàpp naa ne liñ fi def lépp maanaam ñaanal ko defe naa bokk na ci li ëpp solo yàlla may ko wér ba mu dellu ci ay yitteem ndaxte yitteem amal na njariñ maanaam ñëpp di jégalu tamit ci kanam yi yëkkati ci kanam suñu Abdou moom it suñu mag ju baax la ndaxte moom it wax dëgg yàlla fu daante fu mu ñëwee dana mu woo ñu toog di waxtaan ci hôtel bi yu bëri kon jàpp nañ ne ñun lu amuñ lu ñu def rek di bu ñu def lu mu tuttu rek dama dañoo roy suñu tànk kilifa ak suñu tànk mag ndax nit ki ñaare boo juddoo li a teg say tànk ñun lañ gis si ñoom mooy lu baax ak lu rafet kon di ñaan yàlla mi nga xamante moo mën a dëgëral nit ci ab njub mu teg ni ci yoon woo xamante bi ne mooy yoon wi gënte ko wàcc mu asalaamaaleykum jërëjëf Mbacke Mbacke wala pon naa bañ a def ah, def ñaan ñu daal ah. Ah. Euh, ñaan gi ñu fasaale ci ku wutu koo mën ta gan soxla nga ak ñaan kuñ ni ceerno jóoba la jur nga des fi des fee jigéen lu doon doon sa way jur doom ñi di ko xool ci baayam Moodu mii ni mel ak ñi mbokk Soxna Xadi mii xeebunu ko waaye dal waaye daa metti te gan fa muy dal wali xaju fa ci kanam rekk lay dal li weesu lépp rafet na waaye li ci kanam yàlla na la yàlla jàppale ba sa nuru gépp nuru sa baay ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax ndax kanam du kaso waaye koo ca tëj xam ko te sab jëm ñaawul de ñu ngi koy nettali ndax waxtu bu ñu bëggee xam dara ci maam Thierno am na ku ma dul sori waaye day wax ni bu ma jotee Modou Diop rek lu ma ca bëgg a xam dinaa ko xam kon fa tabaarkàlla loolu nga nekk rek la man kenn wéyu ci kon ku tëleeti na ngay fàttali ko ku mënati na nga fàttali ko tële li nga nuy dàq te danaanu dàq am ko ba xel man yàggul ngeen baal naa ko bu baax na baal loolu yaa koy jot leen sëñ Abdou nee na nguñ loo ci wax nga ni maa ngi koy sant bu baax. ah waaw nee na de nee na nee na mi ngi sant. ngeen ngeen dundaat téeméeri at yéen. jërëjëf Mbacke loo am na jox ko. nee na mi ngi koy ñaanal ñu dundaat téeméeri te lu ma am jox ko waaye nag am na lu ma fi xarit loo di wutal loo xam ne yàlla ko yàlla so xarit <laughs> yaa njëkk la. xarit leen. tàll yi bisimilah. iyyaaka na'budu ihdina siraatal mustaqiim bismillaahi rahmaani rahiim. Nuuru Maxtaar nee na nañuy ñaan santé ak CFA. waaye foofale fii nañ fi ñaan santé ak euro. ak mucc erreur. amiin amiin. erreur bi yëngu na lool yàlla ci mucc lool. amiin yàlla seet. آمين نصر الله والفتح آمين تدخلون في دين الله آمين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق من شر النفاثات في العقد من شر آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يسر لنا جميع ما ينفعنا امين امين وافتح لنا كل باب امين يا رب العالمين لسالهين من امين امين امين ما شاء الله